muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi almuhaajirina wal ansaar wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin wa radiya allahu taala an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yaa himmata sheikh ixduri lana bi hada almaxdari waltaatifi bi nazratin taati lana bi zafari mbokk yi ñépp ñépp góor ak jigéen ñi yàlla boole tey ci ngoon gi 31 juillet 2010 fii ci Markina yàlla daj ñu fi ngir yàlla li ma jëlee Sénégal jaar fi ma jaar yépp ba ñëw moo leen indi ngeen jóge ci seen kër yi ak seen dëkk yi ñëw fii allahu rek jëlla jëlaalu yàlla moom nag lañuy ñaan mu defal ñu tawfiq ma dëgg ca ba nuyu leen yéen ñëpp ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li ma mooy li ñu jàngal ci diine ne jotaay bu yiw benn yàlla dana ca far ñaari junne yi junne jotaay bu yiwati maanaam deux millions jotaay yiwati kenn su ko topp ci ngay xame ne daanaka jullit ci buuñaa la dëkk parce que réglé na problème ba pare insha allah alfay alf mm-hmm. euh, mbokk yi ma jaar ba ma jógee Sénégal ba léegi nii lañ demee ca Italie ci plusieurs départements ak ci Paris ak région ak ci Espagne bi ma fi duggee léegi yàlla def na bii mooy dixième conference publique bi ma jógee léegi ak lu ëpp cours causerie wala dërs lu ëpp fukk yépp nag yàlla def na maa ngi ko tabax ci ba yàlla ne yonent yàlla muhammad yaa ayyuha rasulu balligh maa unzila ilayka min rabbika yow yonent bi may muhammad ibnu abdullah ibnu abdul muttalib jotti li communiqué li ma la jox maa unzila ilayka mu gersu jullit bépp bu nekk rek ne ko ballighu anni walaw aayatan walo aayatan waahidatan ma yéen itam ci seen tuur jottali leen communiquer leen li ngeen jëlee ci man même benn aaya bu leen ko xeeb boo xamutoon lu mooy wattaqullaha wa yuallimukumullah jéem ko dégg gëm ko jéem ko communiquer yéen ragal yàlla yàlla leen bu nga ragal yàlla rek mu xamal leen du ne xamut dangaa ragalul yàlla waxul loolu mais taqwa dina jur xam xam nag fukki xam laam junne xamam million bi xam mais bi ci ëpp solo ci xam mooy nga xam ne wax laa ilaha illa allah muhammadun bi ngeen ma woowee da wax ne nañu waxtaan ci jigéen maanaam ci genn wàllu société bi euh, atte yi lislaam tëral ak xool bi mu xool jigéen ak ni mu ko wanee ak li mu ko jox ak li mu ko laaj loolu mooy débat waxtaanu document la nag boo tax ma doon gëstu ba ñëw mais du discours bu may lire mais ay repère la euh, ma commencé ci ne kuy jullit rek war nga sant yàlla ku dul jullit itam soo xamoon yàlla war nga ko sant ndax jullit mooy ki nga xam ne lii ñu nekk tey ci goxi yi àddina bi yëpp yëpp mu un milliard six cent et quelques millions ci kenn la commencé woon dëgg gi ñu xam même buñ ci rawantee tuuti am na jëmmi jamono kenn ko xam laa ilaha illa allah boobu ku ñuy wax muhammad ibnu abdillah moo ko xam bés bi ko yàlla préparé ba xëy ne ko iqra bismi rabbika tournant la ci histoire humanité ba léegi géej ga ci doon walwal yi taxawul ba léegi tàmbali dara ci kenn nag mu mujj ñu naan un milliard six cent millions loolu jar naa sant yàlla mu doon loolu itam fekk ca nga bokk kooku jar naa sant yàlla jamono jee yonent yàlla Muhammad taxaw yàlla ne ko lii ma la yebal lii ma indi ci yow du taxaw dara du ko gaar yow dara du la jot ba mu pare keroog ki wàcc téere bi rek moo ko ñeme a wax moo ko xamoon ci ko ci àddina ci kawn bi ci lépp moo yàlla inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuna ba ko yàllay wax maa wàcce alxuraan ci yow te maa ko sauvegarde maa gàddu loolu boobu rapport de force bi doxoon ci zahir diggante yonent Abu Jahlin comme suñu digganteeg États-Unis la mel daanaka mais nag wallahu xaalibun ala amrihi walakin aksara naasi la yaalamuun caaxaan di jéem di daanu dëgg di jóg bu neexoon yàlla dafay not ñépp comme wa is nataqna al jabala fawqahum ka annahu zul zullatun yahuud yi bañ demee ba ñu yegg foo xam ne nag moom cravache rek yàlla yëkkati doju rek mu tiim leen gëm leen wala mu wàcc ci seen ko ñu ne ah, gëm nañ xam boobu boobu gëm amul solo ba su ko neexoon waaye nag neexul dafa bàyyi nit ñi yóbbalee leen xel may leen xol may leen marche bu ñuy xalaatee di leen dimbale ba ñu xam li nga xam ne c'est l'évidence mooy laa ilaha illa inna allahu baat ñaari baat yooyu moo résumé diine yëpp yëpp yëpp yëpp takat la ak setti laa ilaha dét benn xeetu yàlla ak divinité bu ñuy gëm jaamu ko mu jëriñ njàg ko jaam mu lor lu may allah ci kër yi nga dégg yépp ci réew jullit yi lu leer ba neex neex ak lu naqari naqari su respecté dàq ak setti rekk wax na kalimatu tawxid kalimatu taqwa kalimatu laa ilaha illallah su absenté woon nag dara du baaxati comme nag jullit ñi li li leen ñi ëpp ëpp ñoo fi bàyyi ni ñi moo tax ma ni ku dul julli sax bu xamoon yàlla war na koo gërëm ndax yonent Yàlla Muhammad nee na laa taqumu saatu wa fi l man yaqulu allah allah fekk am na kuy wax allah allah rek yàlla du taxawal bés pénc bu demee nag ba mu soob ko nga xam ne rocc na yëpp kenn kuy wax lay lay la amatul ci kaw suuf dootuñu ko jaral nag muy mobiliser kawnu bi pour nga ndokki piir am taw am jàmm day soppi cycle bi indi leneen mooy bés nag respecté balligu an nii boobu ci la euh, alxuraan joxe ay piste yu leer wal takun minkum ummatun yad'uuna ila alxayri wa yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkari wa ulaika hum muflixuun déjà takun minkum ummatun donc communauté yonent yëpp bu ne ñoom lañ wax ñuy yéeg min bari dem ci saal yi Euh, toog ci géew yi jàngale du ñëpp lañ wax parce que am na yeneen yu ñu war a def yooyu itam jaamu yàlla la mais nag minkum la wax parmi vous na ci am ñoo xam ne ñoom dañuy bàyyi xel lool dañuy wóor ni ñi ci xayru xayru mooy lislaam xayru mooy gëm yàlla xayru mooy baax xayru mooy am jom xayru mooy am muruatu xayru xayru mooy juróom-ñaar fukki banqaas ak juróom-ñaar yonent bi ne garab ak liimaan juróom-ñaar fukki bànqaas branche ak juróom-ñaar parce que am na fu wax juróom-ñaar fukk ak mais nag am na fu yoon saxalee yaxal ne juróom-ñaar fukki bànqaas ak juróom-ñaar nee bi ci gën a kawe mooy xawlu laa ilaha illa allah moom foog nga wax ko nee ba ca gën a suufi na ba ci faree suuf mooy nga gis ci yoon wi lu war a lor ku fiy jaar nga dindi nga dindi ko tuutiwul na nay sax luy bënn tànk oto simple nay sax weñ gu am tétanos simple mu teg ca ne wal xayaau shubatun min al iman nee na kersa itam ci branche yooyu la bokk ñett rek la ci tudd donc am na juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne xadis boobu tudd ko mais ulama yu gëstu nañ ko surtout imaamul yi day sax bind na ci téere bu nekk ñaar fukki volume ci hadis jooju mais yépp boo ko seetee yi ñu jàngal mu ngi ci biir surtout yi nga xam ne dara du sotti te bokk ca am na sax ci bànqaas boo xam ne xam droit say doom ci la bokk ban woote boobu nag bi ya yonent minkum ku ci xas engagé sañoo nekk naan sonn naag sori naag ki bàyyi ñes daf ma daan wax su tegalee tegale tegale ma ne ko ah waaye duñ nopp lu fii tuuti nga door a wéy mu ne ma nañ dem tukki tukkee koy jeexal programme foog nga appliqué wu du jeex moo tax nag ñi ngi la lu luñ ci rëdd rek ba egsi war nañ sant yàlla ñaan continuer parce que drapeau la boo xam ne du daanu insha allah kun da koy jox sa moroom bañ dajeeg yàlla mu gërëm donc objectif bu sori la moo gën a sori Moscou moo gën a sori Washington comme laa joxoon nañ ci ñaanalante ok l'islam mi joxoon jigéen moo gaa l'islam ci boppam lan la xam nga l'islam pas-pas la ci xol booy am conviction soo noppee kenn du xam mu ne nga wax ko ci làmmiñ bi wax yomb na waaye mu ne nga jëfee ko ci say cër pas-pas bi yomb na ndax nit ku dëkkoon sax ci ab île kenn nekkut ak yow boo demee ba ci kanam di nga ne maa ngi nii te indiwuma fi sama bopp am xuliqu min gayri shay am humul xaaliqun te man mënuma dara te keneen ko xool néew lay mel kon foog ñu cherché fan la yëf yi jógee lu mu yàgg-yàgg allahu lay la boo ko xasee wax nag ba nekk ca jëf ji moo lay dëggal même bu ñëwee ba ci julli bi dem na ba nekk ci tribune wala minbar wala kursi di fàttaliwante julli ñi fàttaliwante bi yàlla ñu wax ne am na njëriñ wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yonent la ko del fàttali julli ñi ndax dafa leen di jëriñ même kooku sax yàlla dafa ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin muy ñetti critère encore yàlla ñu xam lépp nee na wax ju gën kenn dàqul wax kenn gënta rafet wax koo xam ne ba mu ne ma dafay oo nit ñi pour ñu dem ci yàlla mais bu ca yemoon rek yëfi yomb lool daf tegu ne wa amila salihan te la muy wax mooy lu rafet muy jëf itam na rafet jëf ci rafet mooy mooy jëf jëf ju tudd ci jàngale yi lislaam ak lu rafet li xel mën a jàpp jëf ji yàlla xee sa saf yàlla te loolu sax du cee mu ne wa qaala innani minal muslimin boo de jullit itam doo am nag complexe da ngay wax solennellement man ci jullit ñi laa bokk jarul sax nga naan man jullit laa man ci jullit ñi laa bokk inna minal muslimin yàlla ne wala tastawi alxasanatu wala sayya leer nañ lu ñaaw ak lu rafet du ñeem nee na ak bokkaal yàlla du ñeem ragal yàlla ak kàccoor du ñeem wala tastawi alxasanatu wala sayya itfa bi lati a ahsan looy def rek ak looy toppatoo rek seetal la gën a jub dëppoo ni la ko yàlla jàngalee ndax moo la gën a yërëm boo ko defee rek mu sa noon sax dafay xëy rek nekk sa xarit mais nag nee na du daraja ju du station bu neex a egg wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa du xazin azim foofu nag egg fa ku muñ te itam am chance chance boobu mooy yàlla yërëm la teg la ci yoonu gaañ aywa l'islam moom ne kaamil bi du manqué manqué wul waxkatu dëgg boobu seet nañ juróom-ñaar fukki cël cëlu gëm yàlla ak juróom-ñaar yooyu yëpp seet nañ bu yàlla jugé dara ba ne bul def walla defal maanaam bul def parce que dafa xaraam walla dañ koo sib wala jekkul defal parce farata la wala manduub la wala daal lu rafet la dañ koo segg segg ba gis ne euh, mënta génn juróom yëf yi les cinq principes cardinaux ci législation islamique tereem mag aayam lii dañ la ko digal wala ñu tere ko parce que dafa baax wala dafa bon ci diine dundu diine ji wala dafa baax wala dafa bon ci sa bakkan bi dund wala dee wala loru dañ la ko tere wala ñu aaye ko parce que dafa baax wala dafa bon ci sa xel mi parce que sa raison bu bokkul bokkatoo wala mu aju ci sa am-am wala mu aju ci sa sa sa sa sa sa askan ak sa teranga ma parce que bu askan amul duñ xam kan kan foofu rek la ko lislaam jubloo boo déggee Jóob ak Njaay Faal yooyu yëpp kat buñ ko defatoon bu ñëpp di jóob jóob jóob du sotti waaw principe yooyu nag moo tax xifzu diini moo tax ku gëmagul libre nga amoon si afal yu mi amoon si afal ak pour mais liberté bu bon la ndax yàlla neen maa ngi lay xaar mais nag comme neex nga bañ a nga bañ a dugg mais nag ku xas dugg moom doo sañ a murtad bu fekkee ne fi nga nekk lislaam a fiy wax xifzu diin dafa war bakkan bi yow sax sañoo rey sa bopp parce mënoo defar sa bopp moo tax yàlla xaraamal xormaal itam bakkan xel moo tax ñu aaye lépp luy jaxase xel ma te baatab xamaru bi ñuy firi ñu sàngara sax ci xaamara ji firi jaxase na ko la jógee maanaam alcool ak bépp matière bu ñuy naan wala ñu koy fóon wala ñu koy tux wala ñu koy piqûre yëpp yëpp yëpp xaraam na parce que noonu xel la te xel moo la ci ba boole woon et ensuite noonu santé la noonu société bi la pardon sa alal alal kenn wax sa mooy nerf de guerre mais mooy nerf de la vie pas alali xaaroona pas alali milliards yi nga xam ne dootoo nelaw déedéet alal normal alal normal ak nag sa ndësëb ak sa teddanga moo tax yonent bi yàlla yàlla na ci alxuraan uduuhum li abaihim ku ne oo ko ci turu baayam moo gën a maandu ñu xàmmeewante yàlla moomu nag ci cadre boobu cadre xaakimiyatoom gi ak li nga xam ne mu ne yaqulul xaqa woo yahdi sabil yàlla bu waxee rek ne na dëgg la wax ak li am te itam day orienté en même temps fi nga xam ne mooy yoon wi du fii du fii yàlla moomu yim wax yëpp ni alxuraan ji dëgge dëggoo benn iota manqué wu ci lu mu àttee ci rek xamal ne noonu la xanaa ñàkk koo dégg kon nag li ñuy góor góorgóorlu ñu du sax argumenté ndax jigéen place am lii la wala lii mais ndax yàlla jox na ko ko su ko ko joxee rek loolu la moo tax nag def ma ko waxtaanu fàttaliku dama ko def waxtaan dellu ci document yi <coughs> jigéen ak góor pour commencer dama ci joxe benn benn benn exemple de l'histoire religieuse nga xam ne moom dafa tënk l'islam fonk na jigéen óolu na ko fonk ko óoluwu ko benn constat rek lañ def ci histoire nga xam ne yàlla moom óolu na jigéen comme genre jigéen óolu na ko mooy am na ñeent ci yonent yu mag yi ñoo xam ne yàlla dafa def jigéen joué ci seen dund loo xam ne seen bàyyi joué wu ko pour wane ne kon ah kon ki woykat bi wax Sénégal bee ko sa góor baax na jigéen baax na xaw lu ci jublu mais loolu moom dëgg la kenn ka mooy Ummu Ismaïl xam nga Haajara buur Égypte moo ko joxoon yonent bi cadeau boole ci yeneen yonent yàlla Ibrahima bon yonent Ibrahima def ko jabaram Saara Saara sa kii soxnaam yàlla def amul doom Ibrahima yéex a taawlu ma di ko cax képp ku yéex a taawlu bul perturbé yàllaay maye doom Ibrahima bi muy am doom boobu boobu boobu am na des dizaines dizaines dizaines dizaines d'années kër giñ bokk ñoom Sarata ak Hajara l'égyptienne comme kër yëpp la mbaax terewut a amit jikkoy doomu aadama mbaax ga daf koy defar rek Sarata fiire Hajara mi am doom te mujj feeñoo te doon moom moo ko moomoon may ko Ibrahima Ibrahima ko moom mu ne ko def ko soxna Haajara ak moom Ibrahima jox ko soxna ko ñu dema dem ba saarata ne mënatut a nekk ak Haajara Ibrahima xam ne yàlla na mën a mbir xam nga ab yonent la ko yàlla dee yëpp moom la la wax mu ne ba pét ak soxnaam soosu di dem di dem di dem di dem ba egg foofu màkk nekk tey nda ko fa jundum ak liiram bi ndem nañ di dem saara xaajara euh, ne ko Ibrahima lii nga def yàlla la ko sant c'est tout ci qui l'intéresse mu ne ko waaw mu ne kon demal yàlla du ma sànk yar bu baax amul je suis sûr que bu Ibrahima ne woon non man maa ko xalaat rek mu discuter ak moom fonk nit du tere nga mun a jaroo ak moom kooku dem fa ba doom ji mar ndox amu fi kempeñ dem ba doom ji wéqu xalaatal jigéen ji toog gis doomam mar ba bugg a dee kenn nekk fa jëkkëram sa bàyyi ko fa xam kooku doy gis nga ku ci dem màkk Safa ak xam nga ci at aj man dama ne mooy di ci gën a jafe dafa gudd mu daw ba Safa yéeg seenul dara daw ba Marwa yéeg seenul dara mu def ko sept fois jaax li ñëw fekk xale baa ngi pëcax pëcaxi ci ndox zam-zam judd na xam nga jigéen jooju quand même kenn mënul wax ne nit mën na koo peggeel wal wal wal wal wal xam nga li indi baatab zam-zam ci seen langue moo doon dalal dalal ndaxte ndox maa ngi waaj a déborder zam zam zam dal nekk fa teen baa ngi fa ba léegi fekkee naa fa sax loo xam ne moom gis bokkut ak dégg 72 dafa am taw bu dugg biir Makka xam nga foofu c'était pas bien aménagé te xur la kaaba gi fees ba am na ñu doon féey di wër kaaba gi ba mu demee ndekete sam-sam dugg nañ ci feeg salte yeeg yooyu amoon na adage bu naan sam dafay fuur xamuñoon lan la bu toggoom bi ak benn bés rek ñeent mu naan bax bax bax bax ba dégager sant bi yépp nga ci ndox mi clair mu commencé wàccaat ndànk ba yàggaat ci suuf parce que affaire miracle la mm-hmm. Ismaïla màgg ci ron yaayam moo ko yar à l'absence de son père daa mi nekku fa léeg-léeg mu jaar fa dowee noonu ba mu xëy màgg ba yàlla tànn ko teg ko ci pegg baayam ñu tabax kaaba gi mu dugg histoire dootu ci génn yàlla yónni ko mu mu nekk ab yónnent ak jigéen yar na ab yónnent yar mécanicien bu mën liggéeyam sax ngóor la yaay Moussa Moussa ibn Imran moom sax ñi ngi wax Imran mais ci activité Moussa doo ci gis Imran ba mu juddoo dafa tomb période bu jafe du ma ci dellu siwaat doy na rek ci su ko Firawna gisoon rek rey ko dugal ko ci kër rek sànni ci nii ci ndigal yàlla muy muy daw ba fa tëmb ci ki koy ut pour rey ko ca pale ba Firawna yar ko ki ko naaw daane Firawna yar ko yàlla moom mun a lancer défi day sa ñaari Moussa fa daje kii Moussa Moussam ordinair bi firaw naa ko yar mais yéefar la Moussa mi ñu bëggoon gis rey ko moom moo màgg ba nekk ab yonent loo tax nit am na ngóora am na xalaat am na ab tariya mais nag dogal kenn mënu ko dàq muusa même bu alxuraan bi wax seetal waaw xëy naa ila ummi Moussa lay wax waxul ila abiha de ila abihi waxee ila ummi Moussa yàlla ne maa ko ne sànni ko ci géej gi maa ne géej gi sànni ko ci géej gi maa ne maa ne waa Firawna foreel ko yépp ay ndigal la yàlla yor wala yulqihil yamu bi saaxil yaxusu aduwun lii wa aduwun law su ma noon ak noonu Moussa ñoo koy porandoo yàlla ne walqitu alayka mahabbatan min nii mu neex ma rek ma def ku la gis bugg la ba léegi yàlla daf koy def hmm? Moussa màgg ci loxo noonu ba xëy màgg yaayam ñu indi ko comme jigéen ju nàmpal ñu fay ko fekk yàlla nee na maa ko tëralee noonu baayam tudduñ ko ba xëy màgg nekk yonent du ma ci sori Isa ibnu Maryam moom faf sax amul sax faf baay yàlla la neex moo ne kimtaan yonent yàlla Isa jaamu yàlla la yàllaa ko màggal yónni ko mais nag naissance am miracle la mais miracle bi ci kaw la nii mais xalqu bind créé yàlla rek ko man te moo koy def nee na inna masala isa inda allahi ka masali aadama isa mii juddu amul bàyyi maa yebal ruuxul qudsi ci suma ndigal li waroon a jaar feneen jaar ci fuufam nga naa fii min ruuxinaa ruuxinaa ruux ma xam ñoo ko moom ñoo ko ko jox pas une partie ci sama ruux waxu loolu ruux la goo xam ne sama ruuxool maako ko ma Isa juddu yaayam nekk ci korowe boo toll ni waxoo defoo xëy doom yëngatu ci sa biir bi xam loolu kenn mënu ko bu fekkoon ne jigéen ju yàlla préparé wu la xam nga day xaru yaa uxta haaruna maa kaana abuki mraa sawi maa kaana ummuki baxiya yow yow foo jaar yow sa baay bonutoo sa yaay daawul def lu bon te yaa ngi am doom nii doom ñaa ngi nii juddu juddu normal alxuraan dafa asharat ilay parce que kenn mënu koo lay moom xamul lu muy wax fa asharat ilay mooy la liir baa ngi noonu daal waxul sax ñu ne ko kayfa nukallimu man kaana fil mawti sabiyya bébé bu nekk ci berceau nu ñuy waxee moom rek instant ne tël jël parole jaamu yàlla la dana ma joxi téere déjà yàlla xamal na ko ci saa si dana ma def yónnent dana ma def may ku barke def na may ku barke dénk na ma naay julli joxe asaka fekk maa ngi dund naa baax ci suma yaay te yàlla def na man duma kumbaru di dëngal dëngali ku àmbal ku toroxlu lay doon moo tax mu nekk fi boo jógee fi faalewul dara ci àddina ay yaay jooju jigéen la Mariam jigéen te Isa mi ngi bokk ci ulul azmi min rusul comme Moussa benn jigéen bi nag du yaay yonent mais soxnaam la mooy Xadijat bintu Xuwaylid ba muy seetlu yonant bi fastabaanat Xadijatu annahu alkanzu lazi xaawalathu alkimiyaaw Xadija dafa ko seetlu rek léegi li mu doon mës di géwanti ci àddina ci lu baax ci xale lu góor bii ci la nag fekk nag am na benn quand nit ku xam ku ko waxoon bés mu nekk ay ay jeune fille ak moom ca ca ca doj ya mu ne leen yéen ñii de am na ci ci yéen ku xam ne dina nekk jabaru ab yonent xale yi daw moom dawut ba mu demee ba gis yonent bi ci mag yonent am ñaar fukki at ak nangam moom mu am ñeent fukki at moom moo ko labatal boppam gannaaw bu ko nag seetloo ba mu wóor ko ne kii du tab œil te du tromper nit xam nga am na moment ci ngoro il faut fair attention parce que gars yi li ñuy wane bu ñuy ngoro boo seeyee du mel noonu mais yow itam yow itam attention yi ngay gis ca këru ngoro ga tout est bien am ñoo xam bu ñibbee dootuñu sangu sax seetlu ko rek fexe bañ may ko yàlla def ci mucjisa boo xam ñu bëri dañuy jàng siira te duñ ko seetlu mooy jigéenu Quraysh seen aada la ménopause dafa gaaw 40 ans kenn dootu am doom Xadijatul am 40 ans yéen ko doomam yu góor yi yépp ak yu jigéen yi lu mooy Ibrahim ñëpp ci moom lañ jógee donc ñeenti jigéen ñooñu doy na ci histoire parce que ku yar ñi naawoo yar nit ñi ku coup d'envoi Moussa jeexagul yawut yi dañu kàccoor rek coup d'envoi yonent Yàlla Isa jeexagul gaa ñaa ngi fi alors waxuma nag Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bon que diine jëlee folli nañ ko xam nga li tax ñoom amuñ problème ku mu ci neex léegi nga ñëw gëm yonent bi am ñaari yoon moo tax yëf yi du ci ñun mosuñoo tëj bunt bi kon nag jigéen loolu rek dama ko mooy résumé bi nga xam ne doy na rek waxtaan nga xam ne loo teg jigéen nag yow gannaaw ga luy wane ne amoo ci moom confiance warul mun jouer bi warul am lii waruñ ko def nii euh, seetal foo ko teg waaye nag bu ko askan yàlla par contre soo ko jëloon sa jox ko lu mu yelloowul sant ko lu mu munul bàyyiloo ko lu mu waroon def dugal ko ci leneen loo soxla yow kooku du yàlla yow la bu amee détérioration yow lañ koy laaj bon kon nag comme wax naa am préambule boobu euh, dinaa seet ne yàlla dafa wax ci benn aaya ci alquran ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum yéen nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp genre humain yëpp lay wax man yàlla maa leen bind nekkulee noonu gannaaw ngeen nekk min zakarin wa unsa ñaari ñooñu du dara lu may aadama ak xawaa moo jaar bu dee ca départ ñaar lañu woon kii di góor kii di jigéen ana gënante bi fu mu jógee moom aadama <coughs> sël humanité du am xawaa sël humanité lu may bu yàlla ñëwoon agir ni muy def ci garab yeeg picc yi picc yi sax ñu ngi dencal mu ne wajaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ñaar ñooñu nag ci laa ginnee ay nit ay góor ak ay jigéen ba ngeen mujj nekk di ay peuple ki peuplade ak ay réew pour ngeen mën a xamante foofu la njàng mi yem mais dégg bi yemu fi li taarafu pour maanaam li tata aarafu benn taa bi dañ ko dindi ngir woyofal comme ca tabaraka takaaru tamayeesu takaaru tatamayeesu mais l'islam man alxuraan dafa bëgg baat yu oyof noonu li taarafu maanaam li taarafu wa taxaabu wa tataawanu coopération mooy njëriñ ga ngeen xamante wóoluwante soppante mun a dimbalewante parce que kenn benn loxo du tàccu bu nu ñu dajee nag am na ñi ngi fi ñi ngi daje mais il faut mu am ay sentiment wu maa gën a fort maa gën kéwala yow yaa gën a fort yow boo emballé sax yi ñëw ne yow doo moromu gaañi booy tuuti nga commencé kii ano yàlla inna akramakum indallahi atqakum ki gën a noble ci yéen ci man-man yàlla te moo am solo mooy kii gën a bàyyi xel yàlla ci yéen parce que taqwa ñu ne mooy ragal yàlla mais c'est un peu plus ragal yàlla sopp ko yaakaar ko ainsi de suite su dara doon ñëw bugg a fii nga teg ci plastique plastique bi wiqaayatu la ba ndox mi du taayal kay gi nit ki itam jikko ji ñuy wax ci moom taqwa mooy bii tax fu ko yàlla yebal bañ ko faa ñàkk a gis fu mu ko tere bañ ko faa gis lu mu ko wax ne neexuma mu ut lu dox digganteem ak loola autant que possible lu ko ci mu jëm ko dabaatal taqwa atqaakum yàlla nag fi muy kache xam-xam yi yenn temps yi te ñu bëri duñ ko seetu mooy feew aay inna allaha alimun xabir am ñoo xam sax buñ jàngee duñ ci egg fa atqaakum rek mu jeex dégg inna allaha yàlla ne na leen wóor nag ne man yàlla alimun xam naa lool valeur yi may jugé xabirun xam na lu ma ko jugé su ma ne atqaakum moo gën xam leen ne noonu la ak ci lu nekk nag kon nag ñaari ñaari nit a sos àddina faalewu ma faale faale faale faale wu ma maanaam melu ma ni kuy jéem a faale bépp théorie buy dàq cosaanu aadama ak xawaa ci am ak nit ñun ñii ñun nit ñii aadama ni ñun la meloon théorie bu la wax ne dañu évoluer jógee ci goloog jógee ci nangam ak yooyu yépp ak nit moo ko wax Charles Darwin nit la comme nit ñi jàng na ci côté boobu bind na téere bu gudd ci jamono joo xam ne moom vérification yi xëy sa yombutoon def na ay observation su fekkee wax na dëgg ci xam-xam moom du fenkat waaye nag li wax wérul nit ñi golo yu évolué lañ te golo évolué tul tey xam nga lii itam benn loxo il faut mu firi ñu du tax golo dootu soppeeku nit ba nekk yonent nekk bu nekk yu nekk ah non yàlla dafa ne sawaytuhu fa ida sawaytuhu xam nga taswiya mooy ni borom butéel bi def butéel bi nii xam nga bu njëkk butéel yi mel ñoo nii n'est-ce pas nekku yoon plastique lim ko def ci benn théorie appliqué ko ba mel nii am rëdd yi yëpp loolu mooy taswiya nee na noonu laa def nit bi ma koy bind baat boobu rek tontu na dara nit duul kuy dana dessin yi ngi gis yépp téere histoire yi imagination nit la buy soutenir benn théorie d'ailleurs man sax maa ngi sant yàlla parce que dox naa ba gis Charles Darwin sëtam boo xam ne waxuma gis ci nii de ci téere mu mu nekk safaanu Darwin gëm yàlla ba nga xam ne dafa bu doon ci Sénégal dañ naan Baay Faal moo bind téere bi ñuy wax after million years mu ne bu ñu fi toogaatoon un million at itam ci kaw ni bi nit kuy gëm yàlla dana fi ne maanaam Darwin day wax rek téere bi sax leneen leneen na ko taxoon nañu ko kon nag aadama ak xaw bu neexoon yàlla ca azal ba léegi xëy na sax ay alam yu bari jaar nañ fi mais ñun ñii laa wax ñun suñu aadama mi mooy ñun ba yàlla di suuf la jógee toogal léegi rek bañ a sangu nga xam nga xam it suuf nga jógee léegi alhamdulilah kon nag nit kooku évolué wu àddina eh, maanaam évolution àddina dem nag ba jigéen am ci ay société yoo xam ne ñi ngi questionné ndax am na droit wala amu ko am na en tout cas ku ne nga ko sof jullit bu dégg lislaam yooyu ma dama parce que dama am ay aay yu pertinent ci mbiru jigéen moom lay waajal noonu bon am na benn conclusion boo xam dama koy jiital mooy bu ñu demee bëgg a gis droit yi jigéen am yépp ak devoir yi itam nag am na benn touche benn benn benn benn benn benn touche islamique mooy Europe jigéen ñi am nañ droit tey ñu ne mais nag droit yi ñoo ko xeex ñaq ba deret mais duwaay yi jigéen am ci lislaam benn jigéen mu su ko réclamer yàlla mi bind nit moo xam li mu ko laaj moo ko ko jox il faut retenir ça yàlla ne alaa yaalamu man xalaqa xalal ku bind xamoo ni nga bind lan la ki defar machine bi moo gën a xam ni ñu koy entretenir yàlla mooy alimul xabiir kon nag damay jiital boobu maanaam droit am na fii am na fii mais différence bi mooy ñee seen droit ñoo ko xeex sonn ci ay siècle ndax am na jëmmi jamono Europe dañ doon laaj laajte ndax jigéen am na roxo jigéen quelqu'un la wala quelque chose la te ay làbbee ko jiite woon loolu mosul am ci lislaam inna akramakum bañ koy am mooy bañ ñuy commencé euh, ñaareel ba bon ñii am ay droit yu ñu xeex di ko respecté ñun droit yi ñu jox ñu bari respecté wuñ ko kooku seen benn affaire la euh, ñu nekkoon lislaam bi ñu jàngal ci mbiru jigéen bi ngeen di laajte am na ku demoon màkka ci njël béynu wax yu gi benn waaye moo ko nettali ne dama ñëw màkka dal ci suma xarit boo xam ne dañuy janoo kaaba gi ci ay tàgga building léeg-léeg ma toog rek ma gis rek benn waay bu mel nii bu ko décrire nga xam ne yónnante la ñëw taxaw benn jigéen taxaw ci pegam wala benn xale taxaw ci pegam ak ku ñuul ñan la Khadija Ali Bilal yónnante mu ne mu taxaw di sëgg ko siggi donc julli mu ne ma ne waaj yéen seen dëkk bii lu fi xew mu ne ko kii de Muhammad ibn Abdullahi dafay wax ne yàllaa ko yónni waa ji moom moom moom constat normal kon nag même première prière vue jigéen a nga ca dellu gannaaw sax iqra bismi rabbika xam nga dafa ñëw gannaaw bu yonent dañ dencee xadijatu diir xadija ne ko gis nga suma alal jëpp jox naa la ko yonent ne ko garde ko di ko liggéeyee na ko daan def dem utal yóbbal rek may dem ca montagne yu xaaru xeraa fa la nekk di fa nekk di fa nekk di fa bàyyi góor bu toll loolu ci màkk may si cënjën googu ñëpp di dem ci xeer wala ku ne xam na ne fa mu jëmoon sori na hmm. oui quand même du lu yomb nag hmm? du muta na bii moo woyoon ne way daa kàndati nufuusu kibaaran taiba fi muraadiha ay saamu nee na ambition su réyee rek yaram sonn ba iqra ñëw ba iqra ñëw yonent bi jàngut liirut bindut te itam musta wax lu dul dëgg iqra mu ne ko jànguma tonn ma jàng xaw ma jàng mbir ma jaar fa mu jaar ba mu jaaxle yaramam yëngatu kon tag asamaan suuf simple asamaan maa ngi jublu rek ngërëm yàlla jigéen na ko ne xaw ma lan waaye dof moom na la wóor na yow doo dof mukk jigéen muy Xadija yow jikko yi nga am konteel ko jikkoom yi ne ko yi jikko doy na gàllaaj yow da ngay jokk ak bokk yow da ngay garder dara pour su manqué nit ñi mun koo jëriñoo yow yow yow yow kaa ngi dem suma nijaay nijaayam Waraqatu ibnu Nawfal chrétien la woon boo xam ne mi ngi ci la desoon ci tawra euh, euh, injil xam xam tawraat des ci pas-pas yu njëkk yi ba mu see yoon ci yàlla Muhammad déglu ko dafa ne ko quddus quddus mel nag ci ñun bu ñuy wax subhanallah ne ko yow day lii nga ma wax mooy naamuus bi wàccoon ci Muusa maanaam wax yu su ma dundoon fekk bi ñu lay génne Màkka dinaa la dimbale ba nga xam ko ma ne ko yow déggu man awa ñii dañ mu génne ko yow li nga indi ku ko mos indi ci ab place day la iñaan génne la génne nañ ko mais génne nañ ko pour mu dem ci succès te bu jaal mi ma xam ci caay-caay su xamoon ne Medina succès la fi yonent yi ci dina ko neexal sax mu toog Màkka parce que bëggul mu am succès mais nag yonent bi wax na gannaaw gi ne yàlla su buggee dogal yenn dogal yi borom xel yi réfléchir dafay bloquer seen réflexion ba mbir ma am ñuy rëccu nag yàlla ko te ne ci ñun gis nga loolu noo mm-hmm. tax gars nag léegi xadijatu kon moo symbolisé démb ba muy takk yonent bi moo symbolisé ci ëllëg sa ba wax yu gi commencé te kenn xamagul lan la ci barki démb ci gannaaw ëllëg sa mooy ki jox alal la yow yonent mi yonent soxlawul alal delloo ko ko responsabiliser ko hmm. bi jibril ñëwee te yonent bi di kii xadijatu am na lum jàngee ci nijaayam je suis sûr daf na yonent bi yaa ngi koy gis mu ne waaw mu ne ko jege ma mu mel ñaari jabar mu sa xaw ko kii noonu ah, rek mu ne ko gisatuma ko xam nga malaaka dañ am ay spécificité mu ne ko mu ne ko lii moom du seytaane mukk anyway du seytaane gis jibril am na autorisation di ñëw ci assemblée yonent bi mel ni kenn ci ñoom di ko laaj bu demee yonent ne oo leen waa ji ñu ne gisuñ ko mu a jibril yi mu ci tiré yow benn benn leçon comme Jibril dina ñëw di benn waay ci mbooloo mi il faut nga respecter mbooloo mi parce que xamoo kan la ci mbedd mi aussi doo xam kan la dégg nga wax léegi maa ngi kon wax ne sharia boobu wàcc ci at yooyu ma la wax principe yooyu résumé naa portrait bi jox jigéen yow yaa ciy dégg jàppal nag parce que mun na la may ci ku la bëgg a rëbëjal du ko mun te am na ci nit ñi ku bugg a gàggantiku xëy na nga ànd ak moom fàttaliku ci te dañu wax ne al al ilmu xam-xam qaala allahu qaala xam-xam boo yàlla nee na yonente nee après que door egg nag ci boroom xam-xam yi parce xamul yow ki lay jéem a rëbëjee pour nga sikk moom ci boppam xam na li muy wax du dëgg waaye nag yow la bëgg nga sikk xam lu tax yàlla moo ne waddu law takfuruuna kamaa kafaru fa takunuuna sawaa yàlla moo ne yéefar yemul rek ci nekk yéefar daf ci boole iñaan itam ñu ngi ne ngéej ngeen weddi yéen ni ñu weddee ñoom pour ngeen yem suñu benn kilifa bu mag ca Égypte Mouhamad Abdou pour wan la maanaam information yi li muy jëriñ nit buñ ko buggee dugal ci pose dafa ñëw Paris teel fa ñëw ci début siècle bale di mufti misra di sol kakola mais di dégg français di dem ci restaurant yi mu ne benn garçon gis ko mu raxasu di lekk loxo mu ñëw pour mokke ko xam nga am yoo xam ne yàpp yu diine rek mooy seen jikko ko am na même Sénégal ak boo ñëwee mu ne ko ah yow bu doon bu doon Sénégal paa loolu la koy xam naa <laughs> yow paa mënoo lekk sax ak fourchette mu ne ko si mën naa ko mais fourchette bi mu bëgg moo fi amul ban mu ne ko boo xam ne man kenn ciy lekk mu ne ah, de loolu amul fi ne ko kon bii man kenn rek a ciy lekk <laughs> benn foog ne ñuy waxtaan mu neex mu foog ne mun na koo jam ci lu mu jàpp ne jam jam bu xóot la ne ko waayu imam seen yonent bi sax ñaata jabar la amoon xam nga koo xam ne sa culture mooy benn jabar théoriquement xam nga booy wax ab yonent spirituel te sa sa sa sa yonent bi ngay woote wooy di lee respecté mbiram moom amul sax fab jabar xam nga boo boo waxee ni loolu yaa ngi koy jéem a jam imam Mahmoud Abdou ne ko Euh, bala mën a tontu wax ma sa baay ñaata coro la mu ne kenn mënu koo compter mu ne ko am nañu waxtaan ci loolu ndax jabar responsabilité la mu jeex bu sax nag ku ñu ku ñu dee rek nga ñeme gis naa ne ban nañ wax ci identité jigéen ci bëtu lislaam benn xal xol tënk bi xalqun min ibadillah muhayyaun du qabiliyatin muzawadun bidaka wal irada qadiratun ala taraqi wa numuwi masulun amama allah juróom ñetti critère laa ko tënkee mbindeef la ci jàmm yàlla yi amul jàmm bu góor amul jàmm bu jigéen ku ñu préparé la ba mun na adapté situation yi góor ñi adapté ku am ku capacité la ku apt la pour dund ci àddina bi yàlla may na ko intelligence moom jigéen may na ko volonté mun naa évoluer mun naa développé te itam am na responsabilité ci kanam yàlla comme góor wala jigéen maa ngi ko teg ci yàlla wax na ci alxuraan am na ñaan yoo xam ne ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد با يالا ديكلار نانغو نا نيان ديف فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى baadukum min baad ñaan yooyu yàlla ne yàlla ne man nangu seen ñaan wax leen ne du ma sànq jëfi kenn ci yéen muy góor muy jigéen ndax yéen ñee ngi jógee ci ñi ñi jóge ci ñii maanaam dictature wala népotisme wala ñàkk xam-xam wala soxom mooy mooy wax ne kii dama koy def lii ngir jigéen la wala kii dama koy jox lii ngir góor la baadukum min baadin doomu guru boo ko xaragul loolu mooy baadukum min baad kon nga alxuraan ka beneen aaya mu ne wa man yaamal min alsaalihaati min zakarin aw unsa wa huwa muminun fa la nuxiyannahu xayaatan tayibatan nee na képp ku def jëf ju yiw ci yi may ngay góor ngay jigéen maa ngi waat ne dinaa la dundal dund bu dal bu tey xam nga dundu bu dal mi ngi commencé ci xel mu dal xam ku fi nekkoon naan laataay suma boromam manaatam hubbalam wala buusa wala confucius xam nga yooyu yooyu ci la déchirement yem boo ko teg nag rabbi allah hmm. moo tax am nañ beneen xadis bu yonent ne innama nisaau shaqaiqu rijal nee na jigéen ñëpp ñooy sëru góor ñëpp shaq shaq sa shaqiq mooy ki nga bokkal ndey ak baay innama nisaaw te kat innama boobu dafa wane ne jugement bu boo xam ne daf ne loolu rekk la nag amul beneen possibilité nga taawile ko leneen ñaari aaya ak benn xadis hmm? jigéen moomu ci portrait alxuraan dem naa ba gis yii ne yàlla toppatoo na affaire yàlla toppatoo na affaire am na inaaya ci moom benn ba mooy bi yàlla ne maanaam da gis ne yàlla lim ne teral na doomu aadama doomu aadama góor ak jigéen la di doxee benn tànk comme góor aaya ba mooy wala qad karram naa bani aadama bani aadama nag mooy góor ñi jigéen yàlla ne na maa ngi waat ne amul werante maa leen teral daal di koy détaillé wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathiirin mimman khalaqnaa tafdiilaa waaw dama leen a wërsëgal loo xam ne lu tey seen lekk sax ba mu tooy lekk yi bàyyi ma te dama leen di waral fu ne buñ dee sax dañuy war dem ci seen bàmmeel duñ dox te ñu bëri ci ñi ma bind doomu aadama laa gënal ci seen kaw góor ak jigéen nag bu toon loolu kenn mënta quand même dompter ñay di ko feccoo loolu jëriñ jamala denc ko fenn loolu jël gaynde def ko ci ay kaas ndi te noonu fi nga koy xamee nag ci détail mooy yàlla dafa yemale góor ak jigéen ci seen cosaan gi mu waxoon ñoom ñëpp fenn lañ jógee Adama ak Hawa ci bind ak yàlla yemale na ko góor ci li mu leen togg jëf amul julli dafa war góor bàyyi jigéen tawxiid noonu oor noonu màkka noonu bàyyi fen noonu bëgg wax dëgg noonu jub noonu bañ a dëng noonu yëpp yëpp yëpp tëkliif tëkliif mooy yàlla am mu kën la góor ak jigéen yàlla lim santaane jullit ñi ñaar yépp la ko sant yemale leen ci buñ defee lam leen sant pay gam leen di fay ñoom ñëpp la koy fay léegi-léegi jigéen ëpp la fuuf góor te loolu noonu la ko yàlla nettalee et moo jox na leen ñaari chance beralu ko góor fàttewu ci jigéen mooy wax day naa fu ndaj day ni yàlla na nit gannaaw bu ma ko bindee ba jox ko raison ak xel may ko marge bu muy tànnee mun a diisu mun a réfléchir damay teg ci kanamam ñaari yoon yoon bu baax ak yoon bu jub bu bon bu mu ci tànn rek nag ma ma ma ma dimbali ko ci nañ dey nañ dey parce que nit xaju fi tey waaye nit lu dogal am am am na nga xam ne am na dogal foo xam yàlla dafay bàyyi nit ak sagoom ak tànnam fa mu koy defloo dara loo xam ne mënu ci dara boo ko seetloo rek jàng yu gudd la nag mooy loo xam ne duñ ko ci laaj bés dañ ci dara foo juddoo kuy sa baay kuy sa yaay ah, da nga xiiboonam da nga rafetam da ñaaw xam nga yooyu du affaire du affaire nit parce que yàlla daf ko déterminer bi muy laata ñëw moo tax mu ne dama ko defee noonu yëg leen ko ndax bu leen bég bu leen jàq parce que du seen affaire bokkut nag dogal boo xam ne moom nangu rek su jóg mënoo si dara mënoo romb chantier ba weñ ngay jógee ci kaw xam nga weñ ki nekk fi di xaar ba nga egsi mu tombeeg yow mu dal ci yow gaañ rek kooku affaire yàlla la waa jéem waa jéem ñëw ci man ne ma ne ma gëm naa yàlla ma ne ko yaa ko door a gëm mu ne ma déet dama lay wan ne jébbalu naa ma ne ko yaa ngi door a jébbalu ma ne ko lu xew nekkee waa ji bëggul wax affaire bi ma ma ne ko waxal sëñ bi jàng amul rus mu ne ma man dama doon dama doon ma ne ko waxal bi mu xamee nañ ne nekkoon naa président du réseau islam et population topp Sénégal ak Afrique di discuter ci affaire contraception yu nekk mu doon maa ñemee nag mu ne waaw man dama doon planning am affaire bu ma jëfandikoo pour daal li war a jur doom du egg su ma jëfandikoo yëf ya toj ma ne ko wala man nag man loolu la ñu tuddee ñun dogal mënoon nga ñàkk nag jëfandikoo daara kër kër yi ba sonn te doom du judd parce que doom du affaire làmbatu. na jëriñ dégg da ko xamee ci li ñuy wax droit jigéen dafa am droit moo yaatu la ay droit xam nga li ñuy wax droit de daf ci am droit yoo xam ne pour jigéen ñi la ci l'islam mais nag droit wu jigéen xam nga góor mënu cee génn kaay nag jël ci yi rek dama ciy tënk rek yàlla jox na ko droit wu dund droit de yëpp dañ koy wax sax droit international daf koy wax mais nag l'islam moom daf koo wax xaqul xayaat droit de vie jigéen yàllaa ko ko jox kenn sañu ko koo xaj tëb fetal parce que jigéen la demal fële parce que jigéen la amul ci lislaam am na xale bu jigéen boo xam ne danaa ci egg sax kon nag ba amee yenn giiru araab yoo xam ne du ñëpp ah, mais amoon yoo xam ne seen conception ci vie sociale moo doon ku am doom ju jigéen comme duñ xeex duñ nangam duñ nangam ñu ne daf daf leen di indi rek ay dépense walla sax mu def lu leen rusloo kon nag dañ koy bàyyi ba màgg tuuti rek ñu fexe ba gas pax suul ko ci wala mu judd bees ñu suul ko moo naqar yàlla ba bi mu koy wax seetlu ko rek ci alxuraan wax bu wax roket na wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat ba muy wax bés penc ya fa naayoo xew mu ne ak itam bés bi yàllay laaj une fillette une fillette enterrée vivante xale bu juddu bees rek ñu suul la daf koy laaj bi ay def bi xutira moo loo defoon bañ rey la yàlla xam na ko xam ne deful dara am ku laaj ne waaw xale bu bu ñu rey bébé buñ ñu rey yàlla di ko laaj bés pénc ma ne ko di di fa nga dégg waxee alxuraan mën nga ci déggee ne ku deful dara ndem dañu laaj yow sax bés pénc mbataa ñu def dara xam nga Cheikh Tidiane si euh, dafa ñëwoon Kaolack benn conférence nett li mu ne benn waaye dafa ko doon gaarwaale naan Espagne ci coow dana jib fu ñu ko séentoowul de <laughs> Cheikh bu ne ma ne ko ma ne ko mbataa fañ ko séentoo <laughs> xam nga ñi dañ mën a sànni ni dara <laughs> ko eh, séentoo hmm? yàlla nanguwul kon xale bu law nga koy suul ne su màggee def lii mbaa def lii yàlla daf ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi risquha ku yukkal ci kaw suuf rek yàlla na man maay responsable sa wërsëg terewul ci orientation adulte daana wax ne ku amul yitte nag doo xam sax sa wërsëg ku amul yitte ku am volonté góorgóorlu am am ambition mu ne doo xam sa wërsëg sa wërsëg nit dafay yëngatu bëgg dara am na ku mu sënd yonent bi benn ouvrier loxo baa ngi majjilat ya daaw loxo baa ngi ñagas mu rus li mu laal loxo yonent bi yonent fab téye loxoom bi nag ne ko hadihi yadun yuhibbuha allahu wa rasuluhu ne ko loxo bu yàlla bugg ak yonent ma ngi nii loxo travailleur may na jigéen xaqu taalim wa takwin droit yàlla may jigéen sur ñépp ñi séq mbiram mooy war nañ ko jàngal am na droit ñu jàngal ko am na droit ñu former ko jox ko une formation euh, foo ko xamee ankay alxuraan moo ne moo aw julli ñi ne ku anfusakum wa ahlikum naara fexe leen ba musal seen bopp ci safara musal seeni njaboot ci safara kon nag boo yëlifee jigéen du rek da ngay yow yaay patron bi moom mooy nga koy gëdd rek comme waa ñu dóor jabaram ci ci kas na tëj bunt bi euh, mel ni mel ni kuy xeex ak gaynde mel ni chauffeur bu tudd nangam moo ñëw dajji bunt ba rek dóor waaja mu daanu mu génne kii ma ne ko yow àjjana nga ñëw incha allah <laughs> waa loolu jabar du noonu di yonent reetaan la benn wax na ko yow rusuloo dóor si jabar ci bëccëg ci ci ci ngoon nga dem di raay lex bi xanaa moo jom yonent beneen kii ba mu ne muru awlaadakum bi salaat ndax yonent bi ñu ko ne bi mu ne musal leen ni seen bopp ak seen jabar yi ci safara yonent daf ne loolu mooy nga dëkk ci rek ahla salaatakum ahla zaka di leen digal lu baax rek nag te bu ci tayal moo tax xat doom ju jigéen da koy digal julli ni nga koy digalee doom ju góor te maa gis jigéen ñu am diine mu jox ko droit wu moom dara jouir ca la moom xaalisam matériel am kenn sañu koo nangu wala nga confisquer ko parce que jigéen la dafa am na droit am suñ ko mayee bu liggéeyee bu donnee bu foroon sax loo xam ne jëfandikoo nañ la ci lu saamax yépp moo ko moom amoon na du réew yoo xam ne ak i législation ak i philosophie yoo xam jigéen du am propriété du du am déedéet l'islam ca commencement ba d'ailleurs sax kenn mënul yàlla jaarale ci diine joo xam ne yow ba ngay départ richesse su jigéen jub liggéey ay at yow lañ yow lañ ko jox moo tax bu ñu la waxee ne jigéen amul droit wu am alal wala ay moomee wala bâtiment walla kii non non non am na droit boobu waaw kenn mënu ko koo xañ jox na ko droit nag bu gën a sensible jigéen am na droit ci tànn jëkkër a maanaam wax xalaatam ci kim ko bugg a may bu dee mag ku bu sa am jëkkër lislaam dafa ne euh, laaj leen ko xalaatam mu wax ko maanaam bu dee déet déet la bu dee ku musul marié mu ne laaj leen ko mais nag quelquefois bu noppee ngeen xam ne bugg na ma ne bu dee ma ne bu dee vingt-et-unième siècle bi moom bu bu d'accord dina ko wax moo tax ba tey acte bi valable na ba noppee xëy na kontaan lool wala ruus la waaye nag du question complex moom waaw ah, bugguma xale bii wala paa bii wuu léegi lañ ci génn <laughs> man maa gis loo xam ne sax day day day day confirmer at boobu ma wax parce que gis naa Paris une jeune dame bu jot diplôme am benn waay jóge Allemagne di ñibbi France bugg ne ko daf ko bugg ma ne ko est-ce que bugg nga yaay la sant sax mu ne ma mu ne ma ah waaw ma ne ah, yéen ni ngeen daan waxee du nii di mu ne man nag vraiment ku am ñaari jabar wala ñetti jabar dama gis ni nitu responsabilité su ma buggee rek man daa dinaa sëy ak moom xam nga réflexion yi bokkul waaye kon ku ku ku bugg lu mel noonu wax ko boo bañoon kay da koy wax loolu lislaam la nee na na wax li bëgg waaw yeneen sax moo ne jeeg a sëyi bu mooy jeeg ku mës a sëy awlaa bi amriha moo gën a yàlla ci mbiru boppam kenn bu mu ko noon mooy si ñu koy wax précis dafa am baay yoo xam ne ba léegi ñu ngi gëm ne sañ nañoo may seen doom ci seen volonté ñoom même bu ca doom ja d'accordul léeg-léeg mu paase yàlla def ci sutura mais nag lu bari kaw moo cay am nañ ko moytandiku déggoo am na droit ñu topp toppatoo ko moom jigéen kenn du ko bési xenne maanaam boo ko xasee takk bankal dund dund dundal ko lu mu am am yow la ko lislaam teg yow jëkkër ci ndaw sa am am su ko bu la jégale nag wala mu di la jox sax jëlal da ñaanal ko da ñaanal ko parce patron la léegi te itam boo koy dundal dafa jege niveau bi mu nekk bul set la la la nekkee ca ca gàdd ga loolu ngay def déedéet à son niveau ndax yàlla ma ne wal yunfiq du saatin min ku am da ngay dépenser dépenser ku am wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma aataahu Allah ku wërsëgam néew kenn du ko forcer donc bu loo xam ne jigéen la rek po lu ma ko jox day na ko déedéet da nga koy jox lu tollook sa niveau yow ak lu yell ci moom mhm. mu jox ko droit wu nga nekk moom nekk bu yiw su fekkee ne am nga jabar droit biñ ne bu ko kenn rey comme nit la droit bu tolloon la ko jox ci da ngaa war a nekk moom bil maaruf yàlla moo ne wa aachiruhunna bil maaruf ànd bu yiw xam nga amul saaga amul dóor saka gaañ amul soxore amul joxe tuuti ci biir dem joxe lu bari ci biti te day am waaw maaruuf itam laaj na su buggee mbubam cinq cent mille nga aaye ko ko surtout mbub moo xam ne bu ñu ko solee benn yoon rus ko sol ci beneen xew y a beaucoup de problèmes chez waaw kon nag bil maaruuf baatam maaruuf ci alxuraan ak baatam xayru ci baat yi kenn mënta firi la ndax yu baax yëpp a ngi ci biir mais même daal maaruuf mooy loo xam ne ku ko gis xam ne nii la war a mel c'est tellement évident yàlla sax yokk ci loo xam ne moom neexutu xam mooy fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fii xayran kathiran te sax mën nga mën a jëppi sa jabar wala nga bëgg koo xeeb fekk yàlla dana ci def yiwu rëy rëy rëy mosoo dégg benn benn benn benn benn concurrent benn yonent benn wali benn xutbu benn Richard benn benn savant lu may quand même mos nañ ko nàmpal quand même mu jox ko droit wu justice au cas où jëkkër yi nekk polygame islam moom waxuma waral na waxuma farataal na waxuma ko de dafa ne dafa ne permettre na góoru jullit bu amee benn jabar su fekkee ne bugg na am beneen jabar aaye wuñ ko ko dagan na mais nag quand même nga respecter conditions yi jouer le mën na dem sax ba ñett ñeent su ko mënee te mun caa génn indem yàlla daganal na ko différence entre waral na ak daganal li war boo ko deful am sanction ki leen dagan na mun ko ko def mun ko bañ def waaw ah yeneen bi nee na góor gu fi am ñaari jabar waxantuma nag lu ko ëpp di defal kii kii maandu woo sa diggante ak moom moralement ou matériellement nee na bés pénc li ñu lay xàmmee ci biir góor ñi mooy da ngay paralysé xam paralysé ci àdduna sax kenn bëggu ko te paralysé àlaxira problème mooy sa noon yëpp dekki nañ mais jaa luy maandu ci ci ci régime polygamie luy maandu parce que baati l'islam dafa am ak baati nii rek waxtaan ci pénc bi maandu buñ ko waxoon ci un chef un roi un émir un président maandu mooy équité bu ñëpp moom boo koy joxee ñëpp am ca sooy may nga may maye bu normal waaw parce que ñu ngi war a may bëri nañ bon lé waaye nag maandu moom ci ci ci ci polygame maa ci ci kër ñaari jabar wala lu ko ëpp mooy lépp looy jox sa soxna yi te muy lu matériel nañ yem loo nañ yem waaye musuñoo wax benn yoon ci lislaam maandu sa xol mais fekk traduire ko ci tooñ kenn ki lislaam xam na ne nit ga waaw mën naa am bon kii ni muy raxasee bool moo la gën a mën naa am kii ñàkk fuddanu moo la gën a mën naa am kii fuddanu moo la gën a et ainsi de suite nag waaye loolu moom la yonent bi dimbale nit ñi firil leen ko lu mu mës a joxe ci waa këram ñëpp a yem après mu wax ñëpp di ko dégg allahuma hada xasmi du xasami de xasmi fii ma amlik fala tuaxisni fii ma tamliku wala amlik ah yàlla yow borom tur yu sell yeeg melu yu rafet yi man de bu may séddale ci li ma mën li ma moom nii laa koy defee moom bu ma jàppee nag li nga xam ne yaa ko moom man moomu ko may may yëg ci xol même jigéen ju civilisé moom mën naa yëg sax ne bon bon kii kii fekk naa ko ni muy ree kii euh, defu ko man mais du ko wax sax parce que quand même dignité sax laa jug bàyyi ko mu ree fu ko nekk mu jox ko droit ci héritage góor dafay donn ñi lislaam wax ne war na leen a donn jigéen noonu am na peuple yoo xam ne jigéen du fa donn dañ koy koy xañ yàggoon na ci lislaam ba ci jaahiliya njëkk lislaam mais nag déedéet ci lislaam moom góor day donn ki mu war a donn jigéen donn ñu ànd ñoom ñaar donn ak benn touche rek boo xam ne ñu yàkkam ci juum nañ ci ba tey mooy li zakari mislu hazilun sayayni góor buy donn kum war a donn maanaam nit ak sëram bu fekkee ne alal yi dañ ko taj ñetti xaaj ñaar ñi góor gee koy jël jigéen ji benn bi te dañu wax ne jigéen a gën a néew doole comme soo xam nga c'est que théorie loolu itam wax dëgg yàlla man sax li koy layee mooy yàllaa ko wax moo ko àtte ci baat yoo xam ne amul benn ambiguïté lii moom la ko nag amul werante waaye nag ku bëgg itam gëstu ba sa xel gën a dal mën nga ko da gis ne kumba dafa doon un million ci baayam duudu doon deux millions kumba denc million dem France ñëw jënd marchandise di kii alors bu fekkee amul jëkkër sàmbaa koy dundalaale sàmbaa ngi dundal jabaram kële denc xaalisam kii moom di dépenser xaalisam ci ñëpp te li war góor moo gën a yaatu fuuf yàlla maandu googu lay def mais nag affaire boobu benn rek la ci miraas am na sax soor yoo xam ne dañ dem ba jigéen ëppale góor mais xaju fii kon nag ki àtte moom ngay jox confiance mooy Allah yow nag nga tuumaal sa compréhension fekk ba nga koy déggee bon jox na ko droit de participation effective ci bu ñu yar seen doom yi ci kër gi bu la nga yar sa doom yi ni mu la neexee rek jigéen bokk ci lépp contraire moo la ci ëpp sax quelque quelquefois rôle man gis naa koo xam ne musul yëg inscription doomam buy dugg école ci sa femme qui s'en occupe musu ko yëg waaw alhamdulilah tout va bien kon nag daf ci bokk buñ ko ci génnee du baax e noppi yow jigéen nga luy loolu mënoo ko koon wax bi mu ko ëmbee juróom-ñeenti weer ci biiram ndaw su pànk soo su woon Paris Simone de Beauvoir xam dafa pànk duñu si dara bon mais wax na bés au moins mu yow góor mën ngaa fexe man ba ba ragal la yow ma denc la ñee juróom-ñeenti version bii bi xamoo foo nekk <laughs> moom dafa pànk xam nga donc yàlla moo tax wax na ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaatu wa ala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf bu jigéen ji amee doom moo ko war a nàmpal nàmpalu sunna nag xewi na ou presque ndax daf ne xawlayni kaamilayni vingt quatre mois d'allaitement waaye yàlla comme moo xam jaam mu ne li man araada an yutima rida mooy ku bugg nàmpal nàmpal bu mët waala mawludu lahu baay ji mooy mawludu lahu risquhunna wa kiswatuhunna moom ñoom ñoo war a nag entretenir yaay yi ñoo leen war a jox ay yére te def ko nam war a mel et ainsi jox nañ leen droit wu mbiru famille bi bu dee direction dañ ci war a bokk ak jëkkër ji di ko administrer ensemble doo daadaar lu nu la neexee nga defee ko soo amee xaalis dépensé ko ba mu jeex ngay dem ca naar bay lebati te moom ndaw si mooy souffrir moralement ci yu yu ñàkk fayda yooyu daf ciy bokk te nag boo royoo ci bu waaj ci yonent bi rek day yomb gis ngay yonent bi yàlla xamal xam-xam wooy njëkk wooy mujj jox ko procuration boo xam ne yegg na ci bi mu ne aj yàlla waral na ko am ku yàkkamti ne ko xanaa at bu jot la de mu bàyyi ko ba waajoo ko ñetti yoon mën na ko tey leen bi nga ma laajee su ma nee woon naam rek yàlla def ko loo ab bés ci ki egg ci fooraay googu demal ci Xudaybiya bi ñu ne dañuy dem màkk yonent géwén géwén sax ne def nañu umra ñëw Quraysh opposé ci dugga màkk mu tey rek négocier saaba yépp mer waaye moom mu egg ci pacte dix ans d'amnistie dootuñu xeex nga xam ne dix yooyu sax ci la lislaam tasaaroo fa saaba yi dañu mer Omar sax ñëw ci Abubakar naan ko xanaa ñu nekkuñ ci dëgg lu ko lu sax ñu pacte bi yu bon yëpp ñun lañ ko jox Abubakar li tax mu nekk xalifatu rasulillah mi ngi ci moom mu ne ko Omar mu ne ko kii yoon ci yàlla jàppal ci dëggalam rek lu mu la wax def mais ci crise bu grave boobu yonent si ñëw ci soxnaam ne ko ñii alaku nañ diggal naa leen ñu bañ en effet oui su réglé wutoon alaku nañ soxnaam moo moo moo réglé problème umu salamata moo ko ne yaa rasulallah jigéen ñi ñii danga nam rek ba rek lañu ko loo bëgg ñu rek mu ne watu xam ne ñun ñi ngi mel ni am nañ yoonu umra mu ne ko watul rek nga seet yonentu ba muy watu rek gaa yi commencé njëkkante paaka yaa kii lépp watu ñu ànd ñibbi yëf ya rangé wa te itam jox na ko droit nag waxtu wuñ bafuyee xàqam d'accord ci yaru de mais ci fulla foog mu réclamer ko su ko neexee réclamer ay droit am suñ ko ko xañee am na ndaw su ko def ngir dégg gum dégg jàngale yonent bi ba ko jëkkëram toogee ba mu am ay doom amaat ko amaat ko ba nekk mag mu xëy ne ko xaraama naa la su fa gannaaw yaay wax dafa ñaaw soxla kooku ñëw tawat ko yonent bi xawlatu ñëw tawat ko ko yonente xam itam du du tëb rek di wax foofu yàlla indi ci moom atte alxuraan yi yéex a wàcce ndaw si moom di adressé yàlla di tawar rek ne suma biir bi yulli naa ko ba jeex ba may bugg ñépp ma bëggoon mu toog ba léegi mu ma xaraamal na rek alxuraan wàcc qad samia allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi tahawurakuma yàlla ñu yàlla yonent bi yàlla dégg na waxi soxna si ñëw di dàggeeg yow di di dialogueeg yow di waxante yow ci mbiru jëkkëram ndaw si xam ñëw na di tawat mbiram yàlla te yàlla dégg na bi ngeen di dialogué yéen ñaar alors mbir ma àtte ñëw xaramal itlaqan nit wax façon fase bu ñaaw boobu te koo ko def itam àtte ci àtte yëpp mu kii ko ndaw soosu euh, moom asamaan na ko interveniral directement kon nag du jeex droit yi du jeex mais droit yoo gis nag xam nga am na sax benn jeune fille bu bàyyi maye te moom ki ñu ko may daal neex ko parce que tàgguwuñ ko mu ñëw ci yonent bi directement fi mba xanaa nekkee benn ko ni ñu koy wax ne suma bàyyi dafa may mbokkam d'ailleurs sax xam naa ne du xale bu modeste te mu a ko sama baay dafa may mbokkam pour yëkkati dara jaam <laughs> wax bi maanaam modeste moom moom moom moom day yëkkati daraja nit quoi moom ndaw si yonent na ko soo bëggul ñu tas ko mu dool ko wax na nangu na yonent na ko lu tax nga naan déet waaw mu ne ko dama bëggoon a xam ndax li nga indi ñun am nañ ci wàllam de mm-hmm. waaye bu seetlu woon xam ne am nañ ci wàllam waaye nag boobu confirmation la rek bu yonent noonu tas na rek mu tas itlaqan annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim yàlla nee nag yonent moo ëpp priorité nit jullit mu ne ci sa bopp moo ko yelloo nag ah moo tax mais nag droit yoo gis itam maanaam droit yoo gis itam am na ay devoir ndax yàlla moo teral jigéen ndax moo ko bind xam rôlam ci société bi ak ci kër gi mais itam nag du ko neexal moo tax mu ne ah am na yu la war nag am na ay am na ay devoir nag day devoir nag mu ne ko benn ba mooy war nga fonk sa ñaari waajur yow jabar ndax alxuraan a ko yaxe wasaynal insaana bi waalidayhi xusnan du góor rek jigéen ñi te war na fonk yaayam fonk baay ma wax ci benn atte bu yónnentoo boo xam ne ñëpp la intéressé parce que fi ne nii ku nekk jamonoy crise war nañ laa wax luy indi wërsëg <laughs> n'est-ce pas surtout bu yombee yonent yàlla Muhammad nee na nit léeg-léeg mu dem ba mu yàgg rek wërsëgam tolof tolof yi fekk na tax mooy dafa gëj ñaanal ñaari waajuram je suis sûr que ku def autocritique ñu bëri gis nañoo ñaanal seen wàcc te dafa yow rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira alxuraan ko formulé ñi niñ ma yaree ba may xale mënuma dara yàlla yàlla nañ leen yërëm et puis ponk leen ponk leen parce que du lépp ñu Muhammad pour nit ñi xam ne yaari waajur du caaxaan nettali na loo xam ne moom yàlla koo ko wax yu mos na am ñetti nit ñoo xam ne dañu doon tukki comme montagne yii rek taw bu taw bu rey am rek ñu dugg ci benn xunt rek ngelaw li wàcc benn doj rek mu mu fatt bunt fañ fañ naayoo génne kenn yëgul na ngi fi xam nga moom bàmmeel la rek yonent ne kon nga xam ne du wax caaxaan yonent ne ñoom ñu d'accord ci ne lii ñu daal yaa dëgg rek moo ñu fi mun a génne tout l'importance de dëgg dama doon wax sax na ku nekk seet loo mos a def ngir yàlla lu sell ñu ñaan ci yàlla ba xam loolu mooy torosu kenn ki ne man dey mës naa liggéeyloo benn waay mu liggéey ba pare d'accorduñ ca fay ga mu gedd dem ñu toog ba jëmmi jamono mu jaaral fa ne ma ay jàmm yàlla bi ragal yàlla jox ma suma xaq mu ne ma ne ko jëlal gétt yi nga gis yaa ko moom mu ne ko nga di ma reetaan sax boole ci mu ne ko déedéet la ma waroon jox nga xeeb ko moom laa fructifier ba mooy gétt yëpp jël mu ne mu màngi ay xaram dem yàlla boo xamee ne loolu dama ko def moo rek ngir yow yàlla nag ñu xettali ñu dem xelu yëngatu mais xajuñ ci bunt bi ma yàlla yëngal xel ku yëngal tremble suuf nit ñi kii mënoo yëngal aw xel mm. ah mm. ah la dama xam kenn ki ne yàlla man de mës naa ratti suñ reer xam nga ay kookoole ñëw fekk suma baay doo liggéey ak suma yaay ba sonn tëdd nelaw ma xam niñ sonne te indi naa meew mi te itam bugguma reer te reeraguñ te bugguma leen a yee ndax dañoo sonn ma téye éngu ci seen pegg sukk fa ba fajar jot mu jóg naan soo xamee ne loolu dama ko defoon ngir yow yàlla na ñu xett li doyul bougé waat tuuti mais xajaguñ ci kenn ki ne yàlla man de mës naa am suma doomu bàyyi tax joo xam ne dama ko nob lool lu ne ma wax ko ko rek muy nit ku ragal yàlla ba benn bis nag am ak mu jafe crise am mu jaar fa sonn lool ma profité ci soxlaam ba waxaat ko la ma ko doon wax sàkk ko ci boppam lu xaraam mu ne mu nangu xaalis ba ne ma waa baax na mu ne ba ma demee ba mel ni dama koo jekku mu ne mu ne ko ay diw ragalal yàlla te lettre bii bu ko ubbi ci lu dul dëgg mu ne ma dellu gannaaw wàccee ko xaalis ba dem sama yoon li ma ko bëgg bëgg boo xamee ne yaa taxoon ma def ko yàlla ñu xeroo ne ba nga pare ñu génn mais ci biir nettali bii moom borom meew mee tax ma di ko nettali ñi ñaari waajuram ñaari waajuram ah. kooku droit la fonk sa ñaari waajur benn bi maanaam du droit maanaam warigar la devoir la benn bi mooy soo xamee ne yaa ngi sàkk yaa ngi bugg nit marie la nit la nga bugg a marié nañ ca bàyyi xel diineem ak jikkoom comme góor gu bugg a takk moom itam jabar ndax yonent bi daf ne léegi leen nga takk nit ngir taaram jabar léeg-léeg nga takk nit ngir alalam am na ñu koy def am na léeg nga takk nit ngir askan wam bokk famille bu mag ba mu ne waaye mën nga takk nit ngir diineem nee na nag yow jàppal ci boroom diine bala nga maq doom beneen xadis mu ne mën na am alal ja bewloo ko mën naa am askan wu réew a yàqu ko mën naa am taar ba bewloo ko mais nag moom daf koy defar rek te diine barkalla kon nag maanaam il faut booy tànn boo naan waaw ci mariage laajteel ba xam kii est-ce que day fontoo yàlla parce que buy fontoo yàlla xam nga faalewu la lu hmm. concret laay wax am na ci kaw la ci foofu ci wetu marché sax marché Kaolack vraiment am na ci kër yi nekk foofu doomu ku baax quoi taalibe ku baax euh, mais muy benn waaye bu ko takk ñu ne ko ah waaye kii ma gisaat ko quelques mois ci ci ci kër place Yamadior ma ma ne ko mu ni sëy ba yàq ma ne ko ah lan la mu ne kii daal moom bu bu ndem maanaam bu ñu reeree balaa ñëwaat ca kër gi bët set ca day yendoo nelaw ki ne ko waxoon ne day naan ma ne mu ne man sax naan bi gêné wu ma woon ma ne ko naan bi moo indi loolu nag doom ku faalewul yàlla faalewul la daf lay nax rek il ñu xam ko ku faalewul yàlla bu la neexalee itam daf lay nax bokk na ci devoiru jigéen ci jigéenu jullit ci lislaam tëral war nga fexe ba jàng diine ak bépp connaissance bu koy dimbale ci mu jouer rolam ci kër gi ak ci société bi moo xam xam moom bokk na ñàkk xam waaw na fexe ba xam ci diineem pas mu nekk cheikhul islam ci quartier bi waaye nag quand même nga dajeeg ku ay doomam nekk ay cadre mais bu waxee yow nga xam ne xamul nu muy sangoo farata kooku gàcce la te wóorut na xam di ne mais itam na xam itam bépp métier wala bépp connaissance bépp formation moo xam ne daf koy dimbale ci rôle bi jigéen am mu mun koo bu buñ koy wax ñun fii sax léegi dafa mel ni garaaw mais am na jëmmi jamono ci ni Arabie gi l'islam wàccee ca partie orientale ci jamonoy Faysal gii rek nga xam ne yàggul du fondateur sax non jamono Abdou Aziz fondateur ñoom bàyyi ñoom Faysal ak Fahad ak ñooñu am na benn village buñ bugg a tabax école ñu bañ ñu tabax fa kenn xale bu jigéen du dugg école ñu ne jigéen du jàng te yonent bi ne taalamu diinakum min hadihi lxumayra joxoñ ay ne jàng leen seen genn wàllu diine ci ci ko ndaw su xonq si maanaam Aïcha nisfa diinikum jàng leen ko ci kii alors ñu ne jigéen du jàng foofa mën na la bàyyi leen ñi neexuñoo force waaye nañ uti yeneen jeune fii ci yeneen place yi utal leen ay blouse ñoom ñuy xëy di jàng ñu def ko noonu rek combat pacifique comme Gandhi rek ba jigéen ñi xale yi jigéen yi réclamé seen bàyyi dañ bëgg a dugg école ñoom itam noonu la léegi xam nga kon mi ngi mel ni buñ ne war nañ koo jàngal ci ñun dafa mel ni jaxte wax sax mais nag xoolal xewoon foofu moo tax il faut ñu wax ko lislaam ko tëral ba mu ma nañ jàngal xale jigéen ñi ak du rek diine rek ak lépp lu koy dimbale ci jouer am na beneen devoir mooy dafa war a dégg ndigalu jëkkëram mais mais mais bil maaruf bil maaruf toujours mooy tënku alxuraan pas ndigal bu nekk bu ko na bu jullee ci da ngay bañ da bañ waaw mais nag lu mu la digal lu baax danga koy dégg ndax yéen bokk addina bi te ñaar ñoo xam ne lislaam a àtte lislaam yi ñuy laaj moo àtte ne même seen plaisir bopp suñu ko cherché ba am ko seen diggante plaisir la mais yàlla daf ci bind yool ku nekk sa kanam jëf boo demee da nga ca fekk et ils se sont rencontrés yàlla daf ko jëy bind xam nga loolu xew na waaye nag kon nag kii del dégg ndigalam mais nag bu mu doon digal bu dëng dafa dafa mel ni dëggal bu dëgg war ci am na ankay man mos naa ànd ak imam Hassan Cissé ñuy nuyu benn sage ci Égypte koo xam ne daal nit nit ñooñu nga xam daal nit yi dañoo am xam-xam daal xam-xam tëb dëddu àddina ci salle d'attente bi benn benn jeune dame bu am daraja sax nekk fa te bëri wax parce que di diggante bi rek nettali na fi di wax ne moom li muy ñëw pour waa ji ñaanal ko jëkkëram moo bëgg mu intégré benn group bu échangiste te moom nanguwul maanaam ay xarit yu góor rek dañu war daje ñoog seen ja seen jabar yi da comme ay rab mu ne woon na ko loolu la bëgg ñu ko ci xam nga boobu diggal du maaruuf ndaw si bañ waaye óoluwul sax néew doole mu dem ut ku ko ñaanal te xam nga xëy na dafa pas bëgg dara mais Baye Niass noon na ci Sénégal moom li may góor ñu bari chance mooy jigéen ñu bari jànguñ sharia ba xam ne am na ñetti am na yoo xam ne su manqué ci sëy rek jigéen ji am na droit fase boppam waaw ah? ku takk jabar te doo ko jox dund te am nga ko doo ko jox yére te am nga ko dëkkaloo ko fenn te am nga ko doo ko jox moomee te mën nga ko doo ko respecté te mën nga ko su ko neexee mu fase boppam te xaadi du ko topp ci sharia la wax loolu léegi nag am na loi yoo xam ne doo xam fu ñu ko tëggee wallahi la bil maaruf topp sa ndigalu bil maaruf que foofu yonent nga notion liberté xam nga niñ koy firee nday day ëpp nag mais jigéen am na liberté lu mooy nekk ak jëkkëram ci seen néegu sëy ci seen lalu euh, ànd mu mu mu mu dëddu jëkkëram aaye ko boppam yonent noonu la ko firee nee na ba bër set daw si ko mais malaaka yaa ngi koy rëbb laxnatullahi aleyk yàlla leeral sori la yërmaane simple waaye na loolu dafa war a am itam revers bu la digalee lu wax nga def ko da nga ci am yoon bu rëy rëy rëy dégg ndigal mais bil maaruf droit la maanaam devoir la ci jigéen juy sëy bu jëkkëram amee alal bu mu yàq alal ja na ko dimbale ci économiser ci yoon bil maaruf mooy tandiku dépense yoo xam ne dafay yàq di sonle te loolu moom ku ko wax fi mu Sénégal nit ñi war nañ koo xam parce que waxuma rek bàyyil xew yépp mais takkal tekki rek walis ebak ebbi rek jeexal na mooy ndeele door a ñëw ah ndeele dix millions mos na dégg loolu te am na ñuy dund ba xëy dee di ay wël yu mos ñoo gis million xam nga yéen yi jaaduwul yàlla ne wa kulu washrabu wala naan leen lekk leen lii yu dagan yi mais nag bu leen ëppal de zahiri laaya jooju ni mu leeree ci nga war a jàngee yi ci des xam nga moom lekkal te bul ëppal xam nga moom moom moom moom xam nga ci sa bopp. continuer lekk rek bi amoon ci usul fiqi lu ma zaada ala xaddihi qalaba ila ziddihi mooy ñëw ci yow lu passé foo waroon yem rek day soppeeku safaan ba da nga lekk pour wér da ngay daal di feebar léegi naan itam noonu yi ci des itam maanaam yaay bi noonu la mel wattu alal yi jëkkëram bu mu ko yàq bu mu ëppal ci dépense ah bokk na ci euh, devoiru soxna si jigéen ñi euh, jàngale yi islam jàngale surtout ci mbiru solu ak wax ak action xam nga bokk terewul xam nga bokk jigéen a góor ñoo bokk ñoo bokk cosaan mais xam nga bokk terewul automobile bi lay yóbbu du pièce bu ci nekk li muy liggéey moo bële benn la mais c'est l'harmonie qui fait bouger la voiture bu fekkee ni itam jigéen ji dëgg la am na droit am na liberté mais nag du lu ko neex mu sol parce que solu doomu aadama la ko yàlla teralee amul ci xar yi amul ci bëy yi amul ci nag yi amul ci picc yi amul dara ñoom ñoo am libaas libaas taqwa ak libaas bi libaas toqa mooy bi ci biir yoon yàlla yàlla ne daal di ko xayrul mais nag mooy tax itam nga mën a solu yaa yonent am na maanaam lislaam jàngale na ci solu jàngale na ci wax jàngale na aussi ci action pour jigéen war na ko respecter yépp jàmmam la et jàmmi société bi daanaka mooy discours yi nga xam ne du waaraate sax kii lu concret la boo ko defee léegi da nga gis njëriñ bi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam même waa këram ummaatu muminin yàlla daf ne wala fala taxdaana bil qawl seen kàddu na normal bu leen wax wax juy mel ni waxu wax juy wax wax juy charme kaccoor am na ci société sénégalaise loo xam ne xëy na man bon je ne suis pas normal peut-être mais am na loo xam ne dañ koy taggaate oh diw ko mën a recevoir la recevoir kii xam nga mën a recevoir dafa war a am ñoo mën a recevoir xëy na mhm. mais pas ñëpp nag quand même xam dañ koy taggee ah ku mën a recevoir la recevoir kan ma toog ci jëf wax dafa am wax mhm. jëf dafa am ñuy jëfee bon léegi solo itam moom moo ci gën a man mus naa nii ma def ak yéen nii mus naa ko def ci yëmbal mais association ay ay couturier ñawkat ñoo ma invité woon keroog nee leen yéen ñii dafa mel ni euh, seen mbir dafa simple mais mun ngeen am yool bu mag mun ngeen am bàkkaar yu mag ci kaw pourquoi ngeen maanaam du ngeen yéen imaginer conception bu yëre yoo xam ne dafay boole ñaari yëpp yi nit soxla day élégant parce que xaraamul ba pare décent yére yoo xam ne moom yére yi élégant la day rafet day baax boo ko solee waaye itam nag day dagan du gêner kenn xam nga yére boo xam ne ku ku yiw ku la ku ku yiw rek du mooy kooku itam jaru ko wala boog am na ñu ko moom moo mane ci yére jar naa laaj tey nag tënk nañ ko benn tënk bi moom moom daf mel ni moom xewi na ci Sénégal auzu billah dañuy wax ne yére jigéen yi jullit amut bépp yére buy yiw rek yéreem la mais nag bil maaruf mooy ñaari condition daani mu ne laa yasifu yére yi wala yashifu laa yasifu mooy Euh, piis ba sax baax na waaye nag diñ ko ñaw ñaw boo xam ne dafay melal ci réer bu solo nga nag lii loxo la lii lupp la ba benn waaye gis ku sol pantalon jigéen sol pantalon pantalon bi yem ci kaw yem kepp ci lupp yi yem kepp ci tànk yi yem kepp ci suufu tànk yi mu ne ma kii de magicien la xam naa ne parce que mbub mii soluñ ko dafa tëb rek nekk fi <laughs> ah fu léegi xam naa ay pexe la rek ay pexe la rek ay ay fermeture éclair rek kenn lu ko jar nee na laaya sifu mbub mi bum ñaw ñawin ba ma ne kooku ñaw bi la ci yéen ñaw ba ba mu jëm ci luxuy biir bi la ma ne ko loolu jaru ko te itam góoma ne médecins yi daañu ci d'accord wala chifu nag mooy bu mu yaraax ba ngay seen cër la jàngale lislaam te nit mun naa am yére yu yiw am na sax ne ma moom def na benn étude gis na ne léegi am na façon kii yoo xam ne fulaar ak kii mu ne sax moo gën a élégant mi ngi waaj a nekk problème ma ne ko fu ñu jëm nag lii problème mu ne ñooñu ñoo gën a rafet mi ne ma ne ko yéen nag lu ngeen bëgg nag yow yow sa xol bi nga war a seet <laughs> ñi gàttal neex nañ la ñi muuru neex nañ la yow yow kan nga nag <laughs> yow kenn xamul sa bon ci euh, droit yeeg devoir yi am na ci benn point kenn mënu koo ñàkk wax buy wax l'islam ak jigéen parce que dafa bëri coow te pourtant day lu jaadu la divorce passé ki wax ne ànd leen ci yoon ànd leen ci teraanga am nga ay droit mun nga jàpp mun nga bañ fase nag moom code de la famille day répudia répudiation baat bi sax dañ ko tànn pour mu raglu répudiation te ki koy bind xam nga mën na français amoon na yeneen baat mais répudiation waaw ñooñu ñi am aada di kii yi xaraf jigéen ak yooyu ñu ne mutilation xam nga ñoo ko tey xa am baat boo xam ne dafay tax nit ki mer mutilation mel nii da nga jël si meñ di gor bon léegi fase wax ci tuuti ndax dafa gudd mais atte biñ gën a réere ci yenn société yi la mooy ànd boo xam ne dem na ba neex na ba neexatul déggoo amatul te benn laal benn néeg benn responsabilité ak ñàkk déggoo mënta am bon ñu jéem a defar baaxul ñu tàggoo lislaam dafa ne buñ jaaree ci fi ñu war a jaar xëy na fase du gaaw a am ba fu xaw yi ne natt nañ fi nit di fexee waajal fase bu normal bu sunna ak fi mu koy appliquer normalement warul yées juróomi weer mais añ bi naaj na rek nga fase fu dem si ruubi na rek nga fase boulot bi xaw na ëpp tuuti nga fase fase du noonu parce que rupture bu metti la l'islam nag ci gàttal lool lii la ci wax yépp ay texte la bu yëf day neex ba mu yàgg réeroo am yow góor gi waxal ak sa jabar su fekkee moo jafe fa'iduhunna waar ko raisonné ko ñaare am na yoo xam loolu doy na leen yëf yi su fekkee ne dafa entêté xëy na moom la xëy na ku nekk ci ruq bi la di yàq xel mi te day am il wala el day am nee su boobaa wahjuruhunna fil madaaji tey bu reer nañ cuuraay nañ préparé nañ nga ne yow nga tëdd fële wala nga dem di julli daal bu dajeeg moom ci lal am na yoo xam ne loolu rek yar na leen dem ci ndaw si wadribuhunna nag mooy problème bi parce que féministes yi ak mbata droit de l'homme yi dañuy wax ne jigéen kenn du ko dóor anka ah, ñun tam ñooy kenn du ko dóor waaye dóor bi yonent wax comme yàllaa ko wax xam nga ki la gën a bugg ki gën a bugg mooy allah bu ko fàtte mukk mukk mukk mukk bu ne wadribuhunna des nag ñu seet nañ koy defee dem na ba ci dóor ko soccu xam nga dóor bi du box ko weq ko comme na waaj a defoon déedéet na xam ne tu es mécontent na xam ne kontaanoo waaw parce que même jigéen moom jigéen célibataire mun na laa mun naa wax mun naa def loo xam ne sa xol bi dafay ko te moom du wax du saaga sax <laughs> maa gis koo xam ne la ko feebar ba mu ba jigéen ji waxul da koy hmm. musuma gis mu bu feebar nit kon nag jarul ñaaw ndem mu nawe bi nit hôpital xam kii ku fekkee woon da nga naan waxul dara la la ñes li ma wala mu taaj lekk gi def geste boo xam ne yow dootoo lekk bon dur dur déedéet mais expression wu la te nit dafa war a wane ne kontaanuma lu ko may naa fekk lay doon nee na xam ne ñetti état ko waar ko négliger ko ci ci lal ba dóor ko dóor soosu su fekkee ne d'accord na mu ne bu bul ëppal fala tabghu alayhinna sabila am yoo xam ne bu ñu la gàjee tuuti rek ëppal nee na nag su fekkee ne doxul tabasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha da ngay ut délégation wala délégué ci soxna si ak ci sa mbokk ñu waxtaan xoolal yàlla ni mu xamee nit in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma fekkee ne sincèrement bëgg nañ jubóo bëggu ñoo yàq kon dinañ jubóo waaye xam nga léeg-léeg nit di waxtaan di jubale fekk la ci la yàq sëy ba yaa ko ci waxaale léegi itam nit di fay li ji te bëggul soxna si yow loolu maa ko maa ko kii loolu am na saalum waa dafa mayoon ci ngoro gi mayoon na ca fas fas waa nii ah, maa ngi daje di waxtaan kii moom mu noppi rek gaa yi wax rek ma man man daal lu ci am rek baax na man ma jaar ci teen bi wëgg ko man dem sama yoon <laughs> kooku xam nga ne boobu mënut a jubóo ku bëgg si jubóo nag kenn mënu laa sax a jubóo hmm. léegi nag in yurida islaahan condition boobu lu mat di bàyyi xel la di jubale fekk da ngaa bëgg ñu jubóo kon yàlla yokk laa bay numaa suñ dawee nag ba vraiment yooyu yëpp amul njëriñ lislaam musul sant nit mu fase jabaram ñetti yoon à la fois kenn warul fase jabaram itam te amul seede te itam dafa am condition dafa am fase yoo xam ne dañu nul mais ñàkk jàng da nga juboo sax waaye xamoo ne fase bi ki dafa nuloon fase sunna nga ne ma mooy lan ma ne waa ji na ci dafay fase mais benn yoon lay doon li muy jëriñ mooy soo buggee fay li après dafay da ngay takkaar rek soo buggee fay li avant da ngay juboo rek avant yedd jeex lu mat a xam la nga xaar ba soxna si gis nga ne dafa indisposé julliwul nga bàyyi ko ba gis ne mi ngi julli te dispose dispose disponibilité booba jotewoo ceeg moom dara yow nga seedeeloo ko nit parce que benn yoon parce que naa la jeex na buñ la provoqué ni ku ci teg benn baat arte ba nag léegi aada yàq na ko c'est dommage parce que arte l'islam mooy ku fase jabar fase sunna rupture la waaye nag warul génn néegam l'islam dafay dafa bugg lu favorise jubóo ak lu gën a xóot bu mu génn na fi toog te da ko war di dundal te diggante bi kenn ku ci faatu woon tam sa moroom donn la fekk yedda ji jeexul ñu bëri jànguñ loolu su demee nag bu edda ji jeex léegi nga mer ma jeex ci moom ak ci yow nga bëgg takkaat soxlawul baax na saw ji da ngay canaar rek takk am nga droit processus boobu encore beneen yoon troisième ba nag ci la yàlla doon wax ne way ne tafarraqa buñ tàggoon nag gannaaw ñaari fase ci condition yooyu bu ñetteel boobu nag wala amatul droit takk ko xata tankiha zawjan ghayrahu amatul droit nag tëb rek nag takkaat ko foog ndaw si sëy beneen sëy bu normal du affaire ay baara yu góob yooyu sëy bu normal tas tas bu normal nga buggaat ko sañ nga koo jëlaat amaan nga trois occasions yu mel noonu kon yàlla jubóol bu ko la moo tax yonent bi ne kii la yàlla daganal liñ ci gën a bañ mooy fase so ñetteel day idda waa ah mu jeex waaw mu jeex déedéet déedéet moom moom fekk moom kii rek. Hmm. su wéyee te farraqaa su fekkee ne jeex na edd bi jeex na mënoo ko takkaat mais diggante bi kay moom toujours mun nga am. fekk edd bi jeexoo rek. dafa xaw a niroog lii hmm. droit mbate positif di tuddee séparation de corps. Hmm. man nag fase ngoog yàllaa ko yoonal mais encouragé wu ko. te itam yàgg naa def ay musiba. waaw lu tax nag ndaw si warul génn kër gi. man dama ci réfléchir xam nga comme diggante boobu mun nañ ci donnante. luñ ci doonante xëy na xëy na ki nga fase mere na la lool mën naa am ndax juboo lool du tax kenn tàggoo nit mere na la lool te diggante bi ku ci paatu sa borom doon la boo ko bàyyee mu dem doom ju judd fekk ba inde ji jeexee sa doom la ak fu mun di jóge xam nga loolu wóorut ndax mun na la mere fabriquer la doom te mënoo ci dara bu fekkee lislaam la ñuy laaj war na fi toog ci kër gi waaye nag ñu fi toogee ak xarit yeeg dëkkandoo yi ñoo ñàkk fayda xanaa yow xanaa yow de amoo foo jëm bu ko defee mu dem seytaane gañ euh, faseer mu ngoog dagan na waaye nag ci solution yi la bokk bu ñu demee ba mu sës ci nag yàlla nee na dara tanewu ko wa in yatafarraqaa nag yuxni llahu kullan min saatihi te yàlla ko digee soo jaaree fi ma la wax ba fasee ci des nag nee nag ku nekk ci ñaar ñoom ñaar yàlla dina la jox lu gën la nga nekkoon maanaam lu tane comme dafa bonoon lool wala sax lu foofu gën lu tax nañ am ñuy fase te duñ am lu gën te yàlla ko wax mooy dañu respecté wul processus bi loolu la ku naan garab gi wér naanoo ko ne lu tax wéruma jënd naa ko man ko denc wéruma donc naan ko ba xam parce que dafa ëppoon ci li njëkk lislaam yonentu lislaam euh, euh, réglé ko ñu def daan fase nit ba muy waaj a jeexal yedda nga fasewaat ko day continuer day continuer comme nit daf daan fas moom daal daf daan téye nit ci këram fasewu ko bàyyi ko alxuraan ne kal muallaqati mel ni ku wékk mbubu fenn rek nit ëpp na loolu loolu nag moo tax jàngale yu bëree nekk ci fase terewul nag mer baaxut bàyyi ñu sama nettali naari gànnaar bu naqari deret te ko jàng sax xamul lu ko jabaram def mu ne ko tal anti taaliqun salaas wa kullama xalalti fa anti taaliqun danga mer fase naa la ñetti fase te waxtu woo daganaatee fase waat naa la fa at la tudd naka lay daganaatee te yow fase ko mais loolu mooy mer mënoo fase ko takkagul li c'est comme fase ñett sax dañuy wax rek lislaam da ko aaye fase jigéen fekk moo nekk ci réglam lislaam da koo aaye fase nit fekk mu ëmb lislaam daf ko aaye Abdullah ibn Umar def na ko doomu Umar ibn Xattaab yonent ngi dund mu fase jabaram ñu enquête fekk ndaw kooku ndaw ci réglam mu ne ko mënoo koo fase takkaat ko soo ko buggee fase tam say set ci yow xaaral ba mu set te doo ko jege nga door koo fase lislaam neexalul kenn am na nag bon yu ñuy wax ni ñuy ay parce que ñàkk topp ndigal yi moo indi problème ay baara yëgoog yooyu yàlla yombal la la yow nga ko waaye léegi yu atte yooyu ci famille bari na ma ngay dem at yooyu ci famille biñ ko appliqué lu mu jur jaahiliya xam nga moom jaahiliya mooy l'époque anté-islamique lëndëm rek la wax moo tax daal xaroon ñu yàlla ne xat jaakum min Allahi parce que la ko jiitu woon lëndëm la ak tuboor de tuboor amoon na ci màkk sax zawatul alwiyatil hamra màkk umul xuraab publiquement nëbbuwuñ ay tant yoo xam ne bergen yoo xam ne ay drapeau yu rouge lañ fa def góor gum neex rek nga dem te amoon na sax façon sëy boo xam ne moom jigéen day oo fukki góor na ñoom ñëpp mooy xam ngeen li jaar suñu diggante ñëpp ñu ne waaw mu ne doom yow yaa ko moom kooku sharia la woon ci ñoom njëkk lislaam ana ana ana ana respect nit musiba la biñ lislaam ñëwee nag man dama observé ne jàngale yooyu dafa am nag ay résultat yu ñëpp janoon benn am na résultat ji diine ji am na ko même scientifiquement am na ko intellectuellement ndax boo xoolee da nga gis yi jabari saaba yi mu suñu absenté ci li yonent yi liggéey même guerre xam nga ñooñu kon nekkatuñ la waaj waxoon inna inna nisaa shayaatiin xuliqna lanaa wax yi ñàkk fayda yooyu maanaam jigéen ñi ay seytaane yu yàlla bindal la non ñoo ñàkk fayda ñu ngi ci pegg yonent nu ba bés biñ ne rey nañ yonent ci Uhud xawma nu ba dafa mel ni ñu ne ak mbëq tellement na mu doon de bi muy dem di seeti xabaar bi romb na jëkkëram mi ngi de mi ngi jihaad mi ngi shahid doomam càmmeñam ñëpp xoolu leen ay na rasulullah ba egg fi yonent nekk fekk vraiment deewul mu laal mbubbam yonent bi ne ko äh, bi abi anta wa ummi ya rasulallahi istalimta min al atabi la ubali jiw jote naa la su ma nekk sama baay gannaaw dara jotul la rek faalewu ma dara ci li xew maanaam faalewu ma suma jëkkër mi seyid suma doom suma càmm yow mos nga gis góor bu gën a dëgër ko gën koo doyloo yàlla ñi ñuy wax ñun wàlli yu ndaw soo su bokk ci booleeg saxaab yi Hmm. ña nga woon ils étaient présents ci bu ñuy def lu baax bu ñuy jàng bu ñuy jàngale bu ñuy jihaad ak bu ñu sax négocier jigéen ñaa ngi ci di dugal seen baat am na itam impact socialement parce que ñu nekkoon jaay yee ñoo mujj participer ci formuler la société islamique bi ñëpp yi waxtaanee ba léegi tumaadiru bi mu nekkee ci jaahiliya mooy ki ñu xansa woykatu yaaram la ak leneen benn càmmiñam rek la doon jooy ba ku jàng woy yi ba tey sa bootul jooy mais bi mu xamee lislaam nag benn bés ci benn combat ñetti ñeenti doomam mus nañu shahid à fois te moo leen yebal moo leen xamb moo leen waat bu leen dellu gannaaw wax leen li ñu doon yépp bi mu laajee rapport guerre ñu ne ko ñëpp shahid nañ moom jooykatu démb ba dafa ne alhamdulilahi alladi sharafani bi mawtihim fi sabilihi wa arju an yajmaani wa iyahum fi mustaqir rahmati rek wéy maa ngi sant yàlla moom moom cant moom mi ma teral ci suma ñeenti doom de ci yoonam li ma yaakaar rek fi mu ne mooy fa muy dajale ñëm yërëm yal naa fa dajeeg ñoom et la vie continue et mm-hmm. la vie continue alors ñoom bokk nañ ci forger la société islamique bi ngay dégg ba léegi politiquement am na impact parce que jigéen ñooñu seen bàyyi fonk jàngale yooyu ñu fonk ko dund ko mbiru jullit ñi def leen a te yonent nee na ku mbiru jullit ñi itteelul rek bokkoo ci ñun mooy politique mbiru jullit ñi mooy politique topp seen mbir politique même ci cosaan mooy société bi toppatoo ko léegi dem nañ ci ba sax am na jëmmi jamono ci Égypte shajaratu dur kenn ci jigéen yi gouverne na Égypte suñ sëriñ Ahmed si Ahmed Sukari sil maanaam si euh, sabatu silsal yi mu am ci xam-xam ak tariqa ab téere la téere bu lëmb la xadam rusuux juzu bu njëkk ba yépp sëriñam bu njëkk mooy yaayam ci yaayam la ko bind nga xam ne kon jigéen ñi jóg nañ fañ nekkoon avancé nañ te itam jigéen ñi ci biir lislaam ñoom ñoo éduqué ulamaaw yu bare bare bari xulafaaw yu mag a mag a mag ak ay jàmbaar yu def ba tey ay jàmbaar yu mag a mag a mag boobu sax ñu doon wax na foo gis ku màgg rek ñu roy ko ci léebi ñépp foo gis ku màgg rek un grand un distingué seetal jigéen ci gannaaw ma aussi aussi léeg-léeg nga gis ay promesse yu faillite seetal jigéen ci gannaaw am na nag yoo xam ne comme yooyu wax nañ ko am na yoo xam ne xam nga lislaam kon teg na jigéen foo sooy te wax ji yëpp xaju fi mais nag am na yu ñu war a moytandiku ñu war a moytandiku am na nuñ meloon am na nuñ mujj am nañ ay droit am nañ ay devoir am na am na impact ma itam actuellement suñ jamono ñun ñun ñun am na yoo xam ne war nañ koo moytandiku ba ca njëkk mooy l'ignorance ñàkk xam-xam ñàkk jàng ku amul pexe d'accord mais ku amul pexe itam xamul foo mun di dëkk mais ku la gouverner war nañ koy yedd parce que buñ dajalee mooy yépp jox ko benn nit koo xam ne démb moom ñun ñëpp a yem tey sañ naa wax daggal bopp ñu dagg lu mu signé ñu fay ko warul bàyyi ku bëgg a jàng te mënut a jàng parce que nit ku nekk la nga am boo ko dajalee koo ko dénk yow dafa la war a toppatoo moo tax ñu war a moytandiku réer te dafa am lëndëm yu juddoo ci réer di jur ay doom ci réer musiba la benn am na lu ñuy tarjamaa ñun ci arab al istigrab xam nga da ngay dégg mooy euh, colonialisme am na istigrab mooy occidentalisme réalité la maanaam ay aada ak gis-gis ak sax culture bu occident te occident dañ jaar ak ñoom fenn am na jëmi jamono ñii français leen note ñii Angleterre ñii Hollande ainsi de yàgg na nag ku ci gën a tuuti la téeméeri at téeméeri ni mun na fa bàyyee nit say jikko yu bokkut ak jikko te science ñëpp d'accord nañ ci ñëpp ko bokk ak équation bu jub fii ci benn xam-xam boo ko yóbboo Chine itam traduction rek la waaye benn mais nag culture moom peuple bu ne ci lu wér am nañ seen culture culture bu amul rus naa ko mooy culture occidentale culture bu amul jomb naa ko culture ba ay eh, bu ko diw yégee culture bu amul allah culture bu amul sallallahu alayhi bu amul tahaara amul laab amul sangu bokkul ak suñu bos il faut dire la vérité ni ñu koy defee nag ñii yar ñoo moonu war nit ñi yi ñu war a jël ak yi ñu war a sànni on est libre quand même waaye bu ñu gàttalee robb ba mu nekk ci diggu yeel bi ñu ñu gàttal ba ci oom yi kooku sa dinaa ci ñëw istigra baaxul dafay tegtale faiblesse day tegtale itam jàdd collaboration mooy dangay ngay ànd ak gaa ci li ñëpp mën a bokk li nga moom nga téye ko yow kenn man maa ko jàng ci koo xam ne kenn mënu ko sikkal ci culture ak connaissance occidentale mu ngi tuddoon Jacques berk dama ko xam mu ngi nekkoon collège de France jamono jooju ci année année soixante yi maa ko gis mu bind ne croisée dialectique jamono jooju ñuy tolloon moom la doon authenticité efficacité spécificité ak mondialité nee na mooy croisé dialectique yépp dafa lié nit war na am cosaan bu te war naa cosaanu jëmm jur rek te fekk jiw mën lu ne mënoo dara cosaanu woo te mu ne nit lu mu am am authenticité ak lu mën mën dara efficacité war na garde son petit moi moom la tuddee spécificité yow yow nga jullit sénégalais tukulóor sa tukulóor googu bu mu effacé wolof noonu ñépp noonu mais nag ak mondialité wala ouverture war nga fexe ba nga xam ne foo dem mën fa jël man faa joxe ñu ne bu ñu ko appliqué suñ culture suñ cosaan ak suñ cosaanu moom lislaam munu cee génn islam dafa am yu mu bañ pour civilisation islamique yaramu neen bokk ci papa wax doom ne ko papa tu mens da ngay fen non loolu bokk ci te léeg-léeg fële du dara moom mm-hmm. ainsi de suite culture ak itam am na yu ñu war a moytandiku yàlla fal jigéen moo ko moo ko fooral mais nag moo ko ay mu ëppal ci bëgg zuxruful xayaati dunia ndax zuxruful xayaati dunia maanaam bëgg àddina lool bërix bërix yi ñu ne dafay indi ñu ne dafay indi voilà ñu ne dafay indi ay jafe-jafe yu am bunt yu bëri waaw bëgg àdduna lool ci colaay ci takkaay ci dëkkuwaay ci oto ci nangam ci changé ci wurur fekke yi ci joxe ci ci feeñ xam nga musiba la te ni lim soxla pour am bonheur yu ci bëri yooyu yëpp du ci dara moo ñu ci yar la war a génnee àddina lislaam aayewul bëgg àddina aaye zuxruful xayaati dunia lu ëpp lu ëpp lu ci nekk rek Senghor sax noonu culture mooy lu ëpp rek nga mën na dindi la ëpp te itam am na lu ñuy war moytandiku ñu ne nañ nañ moytandiku waarekat buy wax ci diine te jàngul diine mi ngi mel ni exactement médecin bu dem ci kaw ga di leen mooy tandikuloo yi ñu war a mooy tandiku ndax épidémie am na te nekk duggul sax fakk xam nga moo am na épidémie mu ne bu kenn sangoor ci xam nga loolu doy na war sangu moom baax na loolu nag li koy indi mooy dafay am xadis yoo xam ne mi ngi ci téere yi mais wéruñ maanaam nit ku am fukki at mu nettali woon ne ba may reer ak suma maam Matar xam nga wax ji wérul am na ci hadis yi moo tax buñ ko vérifié rek ñoom dañ fa ñukk mais ku xamul nag danga ko fay romb déglul ñu ne am na hadis boo xam ne daf ne Fatimatu laaj na baayam yonent bi ne ko jigéen lan moo war ci moom mu ne ko an la tara wala tura <coughs> mu ne ko jigéen bu mu ne ko bum gis kenn bu ko kenn gis bu mu gis ki koy faj bu mu gis ki koy jàngal bu mu gis ki koy yar bu mu dem marché bu mu jaar ci mbedd bi bu mu julli ci jumaa ji ah non quand boobu hadis yonent waxu ko an la tura fuñ ko war ta gis an la tara lu mu war gis waaye nag lu ko may rek du mun a baax kooku mooy waarekat yi nga xam ne ñoo jigéen war ta jàng ñu ne benn xadis nee na shaawiruhunna wa na xëy yonent mu ne jigéen ñi day leen leen consulter mais lu ñu wax bu leen ci d'accord loolu yonent dina ko wax te moom umu salamata rek leen ko problème bu toll noonu yooyu yëpp nag waadekat bu xamut te bëri nañ de bëri nañ de lool plus que tu ne le penses. Mm-hmm. ñeme nag di bagante nag. mooy tandiku benn nag moom moom moo ci gën a métti parce que colonialisme français ak Angleterre dem nañ mais des na colonisateur bu leen ëpp doole mooy maison morte yi ñuy wane ñaw yeeg ñawin yeeg solin yeeg yooyu ak défilé ñooñu ñooñu ñoo tenir fi mu ne suñu budget familial ñooñuy forcé ci dépenser ñooy ñooy wane ñooy yar nit kuy wane ah, daa baagu kii kii nag na xam nga loolu buñ demee nag ba jiital la lor gi mu lay lor jarul sax misaal parce que rythme bi ñuy beesalee yëpp yow mënoo ko suivre ak non seulement sa xaalis mais sax sa temps sol am na yenn sol yu ridicule maa nekk fenn di observer benn xew am na femme boo xam ne solu na ñeenti yoon ci genn góor que c'est kon nag yére waxoon nañ ko yére yu élégant ba pare yiw du contradictoire kooku mun nañ ko def équation bu am solo la nit mun naa proposer société juride boo nekk tey Sénégal ak pour le Sénégal ne il faut ñu seet ni ñuy organiser société civile ak gouvernement ñëpp seet nu ñuy def ba éducation wu jigéen ba ñu egg foo xam ne même loisir nit a ko soxla mais nag doo ci ëppal xam nga lépp lu ëpp rek dama ne day soppeeku safaan la euh, fi nga koy xamee su fekkee ne par exemple art ak branche yu bëri yi mu am cinéma théâtre nangam nangam nangam chant danse faña koo kii lu ci nekk boo ko seetloo rek ñun ñu ngi ñuy nax ñun jullit rawatina jigéen ñi parce que ki produit disque wala ki wootee daje ci saalam wala ci kileem këram xam nga moom boo gisee muy jarle c'est que dafa def produit bien fini selon ñoom seeni règle Youssou Ndour su kasetam wala filmam melutoon moom nam ko kilee xam nga du jar mais comme loisir la boo ko soppee muy sa dund yëpp xam nga yow moom jël na sa xaalis ba jël sa temps xam nga mi ngi mel ni mara détail li ñëppi xul fi mu ne la nattoo yal na la ci musal parce que au fond boo ko yaatalee rek par une société buy importer un milliard ci cigarette xam nga un milliard dem na nga jot yow cigarette cigarette tam li nga ko day mooy lakk ko donc lakk nga milliard ba pare lakk santé bi soo gi dara jaru ko yu benn nag yu bëri noonu la mel yow loisir déglu tuuti au moins waaye nag pëng pëng pëng xale yi ci mbedd mi tecc boo bëggee wasifa fii boo dend ak yenn kër yi doo ko dégg boo bëggee réviser doo ko dégg te lii dañ ko def pour loisir pour un moment xëy na samedi dimanche quelques heures quelques minutes waaye bu 24 heures soppee ko foo te kii moom jaay na la dem xam nga yow yaa ngi ci nax nañ la ndax nañ la gis naa itam ne war nañ mun a dimbale jigéen ci mu mun a participer avec efficacité ci euh, euh, ci suñ développement tam amaale bu ci pour participation maanaam yar ba dafay tax mu mun a nekku ci mun a apte kenn kenn du ko fonto du fonto kenn te xam ne yàlla bi bind góor ak jigéen dafay moom la neex am na lef yoo xam ne yàlla dafa def rek jigéen na ci ëpp efficacité góor de manière générale wax mu par benn benn yi am yoo xam ni jigéen euh, góor a fa ëpp am yoo xam ne jigéen a fa ëpp mais comme nag ñoo bokk complémentarité ba tam kon loolu moo tax euh, euh, yàlla ne walahunna mislu lazi alayhinna bil maaruf walahunna mislu lazi alayhinna boo dégg ci arab rek lahunna mooy ñoo ko moom alayhinna ñoom la war yàlla na teg ci nag wali rijaali alayhinna daraja bi indi coow lu bari ci ñi jàng leneen te jànguñ lislaam pour ñun yàlla ne jigéen am na yu moom am na yuñ ko nga euh, yu yu ko war mu waaye nag góor gi xam wali rijaali foofu wali rijaal yi maanaam walil azwaaj lay firi jëkkër yi lay wax waxul tous les hommes du monde alayhinna daraja maanaam jëkkër ji moo amee direction wu kër gi ci état normal société bu ne am na quand même directeur mais wàññiwul daraja ingénieur ni sous-directeur ni conseiller efficace sincère kon nag kër gi dañu wax ne société la bu leen yàlla boole mais baar bi góor nga ko amee mais bu ko neexee mu dénk ko jigéen bu fekkee ne am na lu ko waral jarul sensibilité ak di xul ndax yàllaa ko tëral bépp aaya bu yàlla wax te baat ya leer bu bokk ci muhkamaat yi xanaa kay jéem koo dégg mel ni suñu benn mbokkum tijaan mu jeex takk takk takk nekk professeur émérite bokk ci six académies ci li ma xam ma nga nekk ci Maroc mag la sax léegi nee na ma oustaz man day bu Seydina Cheikh waxee ba ma xam ne moo ko wax Cheikh Tidiane radiyallahu moo ne su fekkee ne dégg naa wax ja am naa chance su ma ko déggut man may kànkar rek dama dem uti ko jéblu ma ne ñu moytandiku nag at ñu moytandiku nag ci domaine place su jigéen nag droit am ak devoir am yi ñu ko war a préparer ak yi ci mu war a moytu ko bokk na ca jéem a ci jigéen jéem a xeex ci jigéen benn élément boo xam ne dafa ànd ak personnalité bu ñu ko jéem a xeex mooy sa féminité l'islam laay wax de jigéen lu mu jub jub lu nekk nekk jullite lu mu topp topp jëkkëram lu topp topp yàlla lu jàng jàng lum lum lum lum terewul c'est une femme quand xam nga foofu dëgg dëgg dëgg ah te war na am sa féminité yàlla ko ko yóbbalee jaar la ci politique am bi muy dundalee kawnu bi ah buñ demee ba nga xam ne sol képpi kii bi faree nii Euh, sol jiin bu am yi weex yii kii ma foog ne sax dafa màgg ndeke dañ koo ràbbee noonu wala euh, di di fënax fënax yi de xam nga kooku itam moom xam nga dafay mi ngi niru niru lu du góor gu normal sax loolu lañ ne non meloon ni nga mel mais nag quand même la féminité est une partie intégrante de la personnalité d'une femme même musulmane ñu bàyyi ko xel léegi rek kon bu ñu eggee foofu soo gisee léegi léegi xam bu ne man dama bëgg a départ léegi léegi nee na ko xam dafa yàkkamti yoo xam ne fexe ba wéral sa gëm yàlla jarul sax ngay jàng téere yëpp ah waaye da fexe rek wu wu nga mun a jàng loo wéralee ne gëm nga yàlla wala nga jàpp ci dëggalu ko jàng mu won la te itam jarte yàkkamti mais nit nag war naa xam quand ndax boo ko deful soo amul maanaam groupement yoo xam ne dañu sérieux ñu di la waxal nga am lu mel nii tam bari am daara am journal am koo mun a téléphoné laaj ko en tout cas ku duggoon ci autobus sa poos xaftaan fees ak jamaa te autobus yi fees yëpp nga naan ni xam nga yow da booy daanu sax du sax yaa ngi téye sa loxo nii yaa ngi kii noonu la iman mel te moo ko gën a cher léegi nag ñi xeex imaan ba mu ñàkk fayda ci nit xam nga duul yéefar yi déedéet ku bugg a wax ci gàdd gi loo xamut bugg a nekk conférencier bugg a nekk gàmmukat bugg a nekk jàngalekat bugg a nekk déclaration bugg a nekk discours kat te ba nit ñi jàng jàngoo ba yàlla yërëm ni ñu den xamal as tuut xamalu la te moo xam lu tax foo njëkka dem fu dul Sénégal koo dajee mu dugal la ci lem ne rawatina sax su amee dara lu la jox nga ñibbi si Sénégal yow màkk nga dem amoo fa ñaar fukki fan sax wala nga dem inscrire fenn amoo sax un an jàng dafa métti nga dellusi si foog ne da war a soppi Sénégalais yi wala Nigériens yi ñu bàyyi culture xam nga af Sénégal bi fi lislaam dugg ak léegi xam nga jege na junne at lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa jinn ko fii maam Maodo ji na ko fii ma Hadj Abdoulaye ko fii ko fi mu jaay mujaahidin rek ma ba joxu yëpp yow nga foog ne da ngay ñëw kii rek jógee fenn rek tasee kenn ci benn kii ah, bu la digee dara mu jox da war a ñëw wax ne nit ñi nekkuñ ci lislaam kooku itam mat naa bàyyi xel. Mm-hmm. te ku amul dara ci formation ak koy diisoo dañ lay jaxase te jaxase wóorul. Mm-hmm. waaw ku mu ne da ngay toog cent ans mun ngaa jaxase delloowaat ko yooyu mais ki seet ku la wax loo xamul laaj ko ku ko xam kënu géewu xam-xam moo nekk kënu yàgg nañ ci lislaam kënu géej ci Nigeria mais daaw ba ren benn waaye dafa nekk kenn la jëre kenn du taras loxo boo ñaan moom amul liggéey lu mooy loolu ku ñaan pare doo raay sa soo ko defee da ngay gumba kenn sa kanam waxul ni ñaa ngi xiif waxul crise am na waxul nañ yokk mbay mi waxul chinois yi ëpp nañ fii wax moom daal waxul dara loolu nag li koy faj mooy nga am référence sëriñ bu mag ba neexutoo jot mais am na ñeneen quartier bi internet sax bu série mun nga ci seet téléphone portable réglé na yu bëri man am na ci ñun ñoo xam ne dangay ngay toog yow ba ci 4 heures du matin ñu lay oo ci ay continent di o di laaj masala day leen laaj surtout nag yow jigéen man gis naa jigéen ñoo xam ne lu ne dañ koy laajte bu ko defee sa gëm tawsul amul nga naa ah bon xaaral ma laaj ah tawsul am na kay yonent moo wax lii moo wax lii moo wax lii te ci xel lii lay wane mhm. ah, waaw kenn du sàkku ci ni ñaan xam ah, nga yonent sax sàkku ñaan ci Omar ibn Xattaab ñaan sa bopp xam nga yaa war a ñaan sa bopp mhm. ainsi de suite bon bokk na ci rôlu jigéen léegi li nga xam ne ku ne war nga ko jëm appliqué complémentarité ci dëgg sa diggante ak sa jëkkër ak ñi nga war a jëflanteel ci mboolem domaine yi parce que àddina compliqué nag kenn du ko tabax yow kenn te je crois que am na rôle boo xam ne pour une femme une femme musulmane benn gënu ko am solo mooy yàlla may ko mu réussir ci moom yar góor goo xam ne góor gi mooy defar société bi te mën naa am te nag ñu xam ne waxtaan wi yëpp su ma bëritoo mu diis dama koy jël aaya al xadis aaya xadis mais xam dafay diis mm-hmm. mais li ma wax yëpp amul ci dara lu jógee ci man mm-hmm. lii dama ko jàng directement gannaaw bu ma ko jàngee dama ko jàngee ci kilifa kilifa gi di ko wax di ko jëf mm-hmm. ah di ma ma di ko janoot mu di ma woon may gis lu ma wonul valeur yi dem ma continent yëpp benn laa ci dama wut mais lii mooy dëgg lislaam fa mu teg jigéen rek doy na boo fa paasee nag yow yaa dugal sa bopp ci jafe-jafe bu ñu la tegee fu ko yées itam boo ko nangoo yaa ko teg sa bopp te àddina bi lislaam li ñu wax rek yooyu yépp moom mooy dëkk maa ngi kon dénkaane te sax waruma ko ndaxte dénkaane dafa mel ni danga nekk ci chaise bu koy mais non lu mu yàgg-yàgg wax ba sax jigéen ñi waaye seen càmm yeeg seen jëkkër yi ñun ñi nekk fii yépp ci Europe ak États-Unis bu ñu fàtte mukk li ñu taxoon a jóg parce que nit bu fàttee lu ko taxoon a jóg dafa mel ni dootu mun a am avancement li ñu taxoon jóg mooy société bu la bugg a imposer ak ñagas-ñagas ak jafe-jafe nga wocc ko fa képp ku immigré xam nga kuy sa patron bi la ko jàngal Seydina Muhammad ibn Abdillah ibn màkk la nekk gaay bu ko imposé état de faiblesse doo ko fi waxee doo ko fi Abu Jahl ne jàng du xew màkk xam kooku lu nit ku baax tawxiid du fi xew am nañ trois cent et quelque ah, ah, yàlla suñ soxla yi fajoo parce que trois cent et quelque la bu doon benn yàlla mu fa jóge bañ demee bu ko assassiné mu gàddaay yi dem Medina te ba tey gàddaay jógee ci situation de non liberté dem ci fu liberté am non travail nga jëm uti travail mm-hmm. ah, non possibilité nga uti possibilité te itam lu ne nga yu xaddaro bi xadri yi bi ñuy wax danga gàddaay pour danga dem immigré pour dajale ab capital am nga ko am nga projet boo mu a fair marché au Sénégal waa demal mais yàkkamtee dem itam te yóbboo loolu jaru ko ndax adage islamique mooy al ardu ardullah fa xaysuma aqamta xayran fa aqim xaysuma asabta xayran fa aqim suuf si yàllaa ko moom yépp foo am jàmm rek toog fa sa kër la foog ñu xaw a kii tuuti Sénégal suñu notion àll boobu waa ji dem dëkk màkk ñu ne ma ngi ci àll ba ki installé Paris ñu ne ma ci àll ba ah diw ma nga Japon di kii ñu ne ma ci àll ba ñu fépp àll la pour ñu loolu baaxul fépp suñ kër la te foo dem nekkal sénégalais nekkal jullit soo ko nekkee bu amee kilifa day leen jokku di leen ponk di leen ñaanal di leen ñaanloo te ñuy dimbalante ci suñ biir na daayira yi renforcé fédération yi renforcé li nga naayu am ci temps booy dem ci àll bi di ay dem ci ay plage yeeg yooyu plage ku fa dem rek gis lu xaraam kenn mënu ci dara boo ko def defuti gis ko xanaa nga dem di jaay rek yow gis sam jaay kon nag boo ko defee ci daayira yi te daayira boo xam ne seeni borom lu ñuy réunion hmm. kooku baaxul daayira bu amul dara ci cotisation loolu baaxul daayira boo xam ne am yàlla du la ubbil bunt nga jël ca jox daayira ba lu bokkut ak cotisation sante ko yàlla loolu bu ñu koy def jàmm rek ay xew te crise bii ñuy jooy yàllaa ko indi ak sàgganteeg état yu mag yi te nanañ waqat ñu ngi ko jéem a defar entre temps bu fi kenn caalit nañ jàpp ci yàlla rek mën naa dégg bàyyees mu ne bu njëg yi seeree jarul soow ñaan leen yàlla lu mu cher cher lan na ngeen am njëg yal nañu yàlla mbay njëg yal yàlla fajal suñu soxla yi yal yàlla sàmm ñu zaahiran wa baatinan yal na yàlla nangul ñu suñ jotaay bii déggoon naa Cheikh Ibrahima mu naan yàlla dina xool jaam ci ab jotaay gërëm ko dootu ko meri mu genn ci jotaay bi bokk non seulement pour ñun mais ku bëggoon ñëw soxta am ngant hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw xam nañu ñu war ñibbi waxtu ñibbi jot na. Mhm. kon nag euh, oustaz ñu ngi wax alhamdulilah jazakumullah xayran. ñëpp dégg nañ ñëpp kontaan nañ. yàlla nga yàgg euh, liñ ko defal ànd ak wér ak tal. di ko defal tawfiq ko. kon nag euh, nga defal ñu ñaan rek. ñu. waaw ñaan na ci ñu ñaan. ok bismillah. amiin. amiin. ñu ne kuy ñaan ak ku naan amin ñoo bokk jàng aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala sayyidina muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا ونوائنا salaatan taftaxu lana biha abwaaba rida wa taysir wa tuxliqu biha anna abwaaba charri wa suxti wa taasir wa takun lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir rabbana la tuzig qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي حين لا حي في دائم رحمتك بقاء يا حي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام كن لنا وليا ونصيرا واقض حاجنا وحاج من أسند إلينا حاجة من عينك التي لا تنام واكرمنا في كنفك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا أنت ثقتنا ورجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا آمين ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يحرمنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا آمين نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وترحمت وباركت ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi laalamina innaka xamidun majid allahuma ainna ala diinina biddunia allahuma ainna ala diinina biddunia allahuma ainna ala diinina biddunia wa ala axiratina bitaqwa waxfadna fi ma gibna anhu wala takilna fi ma xadarna yaa man laa tudurruhu zunub wala tanqusuhu lmaghfira hab lana maa laa yanqusuk waxfir lana maa laa yadurruka ilaahi nasaluka farajan qariban wa sabran jamilan wa nasaluka alcaafiyata min kulli baliyati wa nasaluka alshukra ala alcaafiya wa nasaluka tamaama alcaafiyati wa nasaluka dawaama alcaafiyati wa nasaluka alghinaa can annaasi wala xawla wala quwata illa bika ya allah ya rab yaa xaaliqa alcawaalimi kun baynana wa bayna kulli zaalimi wajzi li kulli man ilayna axsana wa jaazihi anna aljazaa al axsana wanzur ilayna wanzur ilayna wanzur ilayna wansuranna diina addi xuquuqana wa addi dayna wa hab lana duriyatan mubaaraka wa hab lana duriyatan mubaaraka wa hab lana duriyatan mubaaraka takunu lillahi bila musharaka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 jërëjëf jërëjëf